شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على هادي أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين dinaa bana sante suñu borom bi subhaanahu wa taala moom mi ñu bind te melal nu te kàttanal nu te kenn fekk ko ci yooyu def na nuy ay doomu aadama ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawfeexam tama na noo def ci yeneen xeet yi fi def mu booleñ ci xeetu ki gën ci mbindeef yi mu bind yépp muy Muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy tawfeex ak coobareem muy ki nga xam ne mooy aji taktale ji yoon wi jëm ci moom wi nga xam ne ku ca soobu te dëpp taxawut wàcc ko dana yegg mboolem ci tawfeex yi boromam adduna ak alaxira muy yoonam yi wax ne lana wallahi siraati mustaqiman fattabihuhu mu tegtal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal ko it mu woo ñëpp joxale leen ca képp ku bëgg a mucc mucc gu sax faaw nga sóobu ci yoon woowee di siraata mustaqima yoon islaam muy gëm yàlla gu mat sëkk boole ci jëfe ay ndigalam te xelleel jëfin wax muy tawxid ak fiq ak islaam tawxid ak fiq ak ihsaan nu ñëw di dénkante ak bokki jullit yëpp ci dénkante bi nga xam ne jullit bu ne war na jee dellu sa xelam ci fépp fu mu nekk ak ci lépp lu mu nekk muy àdduna tomb bu waxtaanu tey wi ñu ngi ko jëmale ci àdduna mu nekk kër goo xam ni ñu bari lab nañ fi te képp ko lab ci àdduna wala iyaasu billaah suñ borom mbooleem ñi nga xam ne doon na leen yónni ci ay ndaw ñuy dikk ci kaw suuf waxtu bu ne mosuñoo dañ di xamal mbindeef yi di leen wax ne bërëb bii ngeen nekk saxu leen fi daf ngeen di bàyyi ko la na ngeen wéetal seen borom tënk ci ay ndigalam te teel ay tereem te lépp lu mu dogal ci yéen yéen gërëm ko na ngeen rafetal seeni diggante ku ne lam bëggal boppam na ko bëggal morom ma te yàlla rek a tax mu nekk loo xam ne mboolem yonent yi yëpp moom lañ doon jàngale ñu ñëw seen gannaaw yëpp di awliyaa yi loolu rek mooy li ñu doon jàngale kon noonu dañ dañ jiital ci dénkaane bi suñu jëmm ji toog kenn ku nekk ci noonu lay bàyyi xel ni fii mu nekk saxu fi te fu muy bàyyi ko la te fu mu xëyee ñu ngi koy gën di sori muy àdduna donte yaa ngi ci biir fa nga jëm ëllëg li yomal xiyaama foo xëyee yaa ngi koy gën di jege kenn ku ci nekk war a bàyyi xel ni fii di kër saxuwaay waaye kër rombuwaay la waaye saxuwaay bu ëllëg mooy aljanna wala safaanam wal iyaasu billaah te kër génn ku ci nekk la fay dugal jaam bi moo koy jëf ci loxoy boppam ni ko imaamu Shaafi waxe woon laa daara lil mar'i ba'dal mawti yaskunuhaa illa allati kaana qablal mawti yabniihaa nit ki amul genn kër gu muy dëkk ëllëg yawmal qiyaama lu dul kër gi mu tabaxoon ci loxoy boppam fa in banaahaa bi xayrin taaba maskanuhaa wa in banaahaa bi sharrin qaama baaniihaa su fekkente ne tabaxoon nga ko ci aw yiw muy jëfu yiw di waxu yiw di yéene aw yiw te sax ca su boobaa danga ko fekk mu nekk kër goo xamante ni du lu bët ma sa gis melal koy mënees koo melal ci lu xel ma sa daj ci taar bu jéggi dayoo waaye su fekkonte ni da nga amoon pas-pas yu yàlla gërëmut walay kàddu walay jëf te sax ca duggoo ca tuub dellu ci yàlla wan gannaaw pas-pas yooyu dem ci pas-pas suñu borom subhanahu wa taala gërëmut su waa da nga ko fekk muy këru naqar di këru tiis di këru mbugal loolay nekk loo xamante ni day tàmbalee ci sa wàccuwaay bu njëkk su fekkente ne ko sàgganoon nga bay woowel ëllëg gannaaw waaye nga nuuroon ci àdduna rek te bàyyi woo woon xel ni bis dana ñëw boo xamante ni da nga géntal àdduna te dootoo fi dëkkati mukk li nga amee woon nocc ci say loxo dugg ci yeneen loxo muy say am-am say wata say kër say njaboot fi nga tëdd mënalatoo sa bopp dara di xool sa xol bu mujj ci li la wër ak ci ñi la wër mu wóor la ne ni lii ngay xool lépp tey boo koy mujjee gis loolu suñu borom di wax ne laxat kunta fi xaflatin min haada fa kadabna anka qitaa'aka fa basaruka al-yawma hadiid bu fekkoonte ne nekkoon nga ko sàgganoon mosoo dawal sam xel ci ne mbooleem li nga amee ci adduna ci dañ la jëm ab dénkaane rek la nga cay góorgóorlu bu dee ci jëmm la nga ciy jaamu yàlla di ca màgg di ca rafetal bu dee sa alal la nga di ko def la la ci yàlla sant bu dee sa diggante mbindeef yi la la ci yàlla sant ci rafetal ci kàddu ci jëf ci pas-pas nga di ko def sàggane woon bis boobu bi sa wàccuwaay bi njëkk boobu yi nga xamante ni mooy dee xasrail war a dikk war a wocc sa ruux indaale ca safara betteex indaale indaale ak ay malaayika yu sabbaane yoo xam ne seenu taraay ak seenu melokaan ci melokaan bu raglu yal na ko yàlla umpale ab jàmm war a ñëw jël ci sa ruux googu nga xamante ni xamewutoon bëggutoon ñeewutoon jàkk ci lu dul àdduna rek jàppoon ni fii luy sax la nekkoon ko sàggane bis boobu yi su boobaa jàmm bi fa kashafna anka qitaa'aka fa basaruka al-yawma hadiid su boobaa nit ki fi mu nekk ab liir di gane àdduna li njëkk a génn ci moom bi muy génn ci way juróom yi jigéen ba ni mu génn nekk ab liir ba foofu mu tëdd lépp lay jàlloon fa mu fu ma sa jaar na mu fa jaare woon ni la koy gise benn par benn ba foofu mu tëdd loo ma sa wax loo ma sa jëf loo ma sa xool ma sa loxo ma sa laal fa sa tànk ma sa dox jëm fa loo ma sa teg sa bopp loo ma sa dugal sa biir fu sa mpëy ma sa aw lépp foofu nga tëdd danga koy gis nga gis àdduna muy kër goo xam ni këru wor la ñim la wore ak nata xam ñim la daan won loolu nuru ab taar mu daan la ko won lépp nga gis ni fiiram yooyu mu tegoon lépp nga gis ko te wóor na leen tey amul benn jéego boo mën a tey soqeti jëm ci àdduna ngir réccu wala jëf la nga wees woon ndax digg bi su xasee dikk laa yastaxiroona saa'atan wala yastaqdimoona du la jiitoo lu toll ni bën bënu bu so benn seconde digg du la ko jiitoo waaye bu yegsee duñ la muñal benn seconde foofu jaam bi tëdd war a génn àdduna bi ko fi feeñu ci ay xeeti malayka xasraayil moom ñu wax ak malayka saban yooyu ñëw ci melokaan wu raglu wu jéggi day war a rocc ak ruuxam ruux gi nga xam ne gu ruugu laboon ci àdduna la ku bëggoon àdduna la nataxaayu àdduna waroon na ko ba jàppoon ko ba mu jàppoon ni fii kër gu saxawaay la musta xalaat bis boobu su boobaa jëmul dana àgg ci naqar ak tiis ak mbugal moo xamante ni kenn mënu ko misal doomu aadama foofu jëfam yépp teew fi kanamam nekk ay jëmm yoo xamante ni jëmm yoo ragloo ragloo ragloo la ñuy doon topp ko xamal ko ne ko lii yaa ko jëfoon ci say loxo foo tëdd ñu tëdd fa foo taxaw ñu taxaw fa foofu mu tëdd muy janloog bàmmeel bi nga xamante ni ci la war a jëm gannaaw ba mu janloog adduna mi nga xamante ni ci lay génn te dootu ci duggati mukk ak war yam ko war ak fitna ak naqar bi nga xamante ni mi ngi ci jëm day daal di seen bàmmeel ba seen ay jëfam jiitu ko fa jëf yi ne amee melokaanu raglu raglin woo xamante ni jégg la dayoo war a tëdd ak yow ci bàmmeel muy këru xat di këru jiit di këru jaan di këru lëndëm di këru safara ci ki nga xamante ni xolam labaloon na ko ci àdduna te mos ta bàyyi xel ni bis boobu yi mu ngi ci kanamam te luy ñëw la wàccuwaay boobu yi su jaam bi jógee it war a séen na muy taxaw ci bis penc ba ak jëfam yooyu yi muy yanu ko ci bis bi nga xamante ni biiru juróom fukki junne ci ay at suñu borom wàcce jant bi ba mu tiim yuuri nit ñi ñii di lab seenu ñaq ñii seen yuur di xet su boobaa su fekkente ni jëmm la doon loo xamante ni bàyyi wutoon xel bis boobu it naqaram ak tiisam ak mbugalam di su ko mën a misaal doomu aadama jëfam jooju yi nekk yan bu taq ci boppam te du ko mën a yenn ko mukk bu jógee foofee ñu woo ko ci aw turam yenti malayka ñëw jël si ko foofii yóbbu ko yóbbu ko ci boromam subhaanahu wa taala loolu suñu borom di wax ne wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati fardan kenn ko ci nekk da nga teew fi man ba jàpp ne yow rek laa bindoon su boobaa jëmm jooju suñ borom dana ko gecceel foofa gecce goo xamante ni ndax ni mu la bindee melal la kàttanal la soppa soppax ndikuwoo xéewalam yooyu ci lenn lu dul ci mooy ko ak jëfandikoo ci sa bakkan ak sa bànneex ak adduna rek dana la gecceel foofa gecce goo xamante ni ci kanam mbindeef ñu mu njëkk bind ba ci mujj bind sa gàcc gi ëllëg yooma xiyaama yàlla na ci yàlla ko umpale ak jaar nga jóge foofu war a jéggi siraat benn jéego doo ko mën a soqi ngir mën a mucc di dali ca sidrati muntaha boobee war a dugg aljana waaye yàgg say jëf say jëfa ngay rotal ci biir sawara wala xiyaasu billah malayka yi sabbane yi liñ njëkkante suñ borom soppi saw melo ci melokaanu xaj wala melokaanu mbaam ko kem jëf ca la taxeel jikko joojee ba yi ma ba ko amee mel woowee ca la la suñ borom subhanahu wa taala di soppi wala xiyaasu billah nga dugg ci sawara duutoo ko gental mukk war faa sax ba faw te dara du la fa mën a jële kon adduna moom mii nga xamante ni nag fi la ñuy bayee waaye góob gi ëllëg yoomal xiyaama te ku ne la nga bay ngay góob kuy jëmbat jëmbatal aw yiw ci say pas-pas ci say kàddu ci say jëf mooy tax nga mën a góob aw yiw waaye képp ku jëmbat ab safaan it ab safaan rek ngay jëmbat wala xiyaa ngay góob wala xiyaasu billah ndax man amila saalihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi talaamin lil abid képp ku sax ci yéen aw yiw di ko wax di ko jëf la cay tukkuy ci aw yiw du la mooy mukk képp ku sax ci yéen ab safaan wa di ko wax di ko jëf la cay tukkee ci safaan it du la mooy mukk suñ borom tuumit kenn te wala tasil waasiratu wisra oxra amul menn mbindeef moo xamante ni dana yanul morom ma ab safaanam kon adduna moom yi nga xamante ni ci lañ bëgg a jukki tey fas yéene fee dénkanteeg jullit ñëpp ñu xam ne du kër bu sax waay waaye kër bu romb waay la te lépp luñ fi amee ab dénkaane la te képp ku ñu dénk bés dana ñëw lañ la dénk nga delloo ko kon bi ñuy am kàttan ak wér ak wërsëg lépp nañ ko soppaxndiko ci li suñu borom bi subhaanahu wa taala gërëm ndax dund gi lu gàtt la te ku ne benn yoon la koy amee te bu ko ñàkkee duutu ko mën a dee amati mukk kon nañu njëkkanteeg suñu dig ci yéenew yiw ci waxu yiw ci jëf aw yiw te sax ca li ñu bëggal suñu bopp ñu bëggal ko jullit ñëpp te yàlla rek tax te xam ni kenn ku ci nekk sa pas-pas sa kàddu sa jëf booy leetaa yog sa ndeyjoor ñoo la fay yëpp yi gunge la ca bis pénc ba moo tax ñu wax ni àdduna noonu suñu boroom la moom àdduna waaye noonu noonu la yëpp boo xam ni noonu wali yi suñ borom yi la waaye noonu la it ñeel noonu yàlla yi moom àdduna ni mu noonoo suñ borom moo di yoon wi nga xamante ni mooy yoon wi jëm ci yàlla àdduna mooy taxaw ci digg ba ak seytaane ak bakkan ak bànneex ba bépp jaam boo xamante ni bëgg naa jaar ca yoon woowee ngir yegg ci boromam mu gàllankoor ko kon àdduna noonu yàlla la waaye yëpp ba ko suñ borom bindee ak tey wax nañ musuta xool adduna ba ko suñ borom bindee musu koo xool moom adduna ni mu noonoo it nitu yàlla yi muy wëllu yi waxtu wu ne daf leen di jéema woon ab taaram moom adduna akum nataxaayam wan googu yi mu leen koy wan ñoom ñu di ko muñ wextanu muñ woow yi ak wextanu jeexat ak sa bakkan ngir wan gannaaw loolu la addunay wan wextan wooyu mu leen teg kon ku ne xam ne ne adduna ñoom it seen noonu la waaye wextan wooyu mu leen teg it xam nañ ne loolu lépp it fa mu leen di mujjee mooy ci texe gu mat sëkk nekk ci wetu seen borom subhanahu wa taala ni mu noonee noonu yàlla yi yëpp mooy jay gi mu leen di jay ci adduna ak fexe gi mu leen di fexeel ak fiir gi mu leen di tegal ba ñu dugg ca nga xamante ni loolu yi nuru ab taaratum na tax mu leen koy wan ba ñu jàpp ni ñoom kat lii ñu amee luy sax la te du deñ mukk te xalaatuñ ñi ñi leen njëkkoon te amee lu ëpp la ñu amee woon ba tax ñoom ñu jàngal seeni xol jëm ci adduna adduna di leen jay keroog bu ñu àggee ci seen ruux di teqalikoo seen jëmm bañ gis wari adduna yooyu danañ màtt seen loxo xam ni adduna day seen noonu la woon ndax lañ amoon lépp nocc ko ne seeni loxo te adduna it xàññe leen texe ak alaxira bu sax dàq li nga xamante ni moom la ñu waroon a am kon kenn ku nekk ci noonu nay bàyyi xel te ñoom ñooñu bu leen àdduna fexeelee ñooñu ba yóbbu leen ci naqar ak tiis ak mbugal amu ci kenn kuy mën a tey jot li benn baat bu la bu la suñ borom di dégloo ma lay delloo si àdduna ixsa'u fiha wala tukallimuni bu leen àdduna waree ba buñ àggee ci xar-xarle war a génn àdduna di ñaan seen borom mu dellu si àdduna noonu la leen suñ borom di tontu aaya boobu ci sóoratul mu'minuun aaya téeméer ak juróom-ñett kon nañuy góorgóorlu bu baax bañ a bokk ci ñooñu yi nga xamante ni àdduna bu leen tàllalee ak nataxaayam ak naataangeem ñu daw jëm ca fàtte ni am na geneen kër gu nekk ci gannaaw kër gi te kër googee mooy gi sax kon nañuy bàyyi xel loolu ulaika allazina staraw al ayaata dunia bil axira fala yuxafafu anhum al azab wala hum yunzarun ñi nga xamante ni day jënd nañ këru dunduk adduna gi dunduk alaxira suñ borom ëllëg dana leen teg mbugal mu tar moo xam ni kenn du ko wayfal muy mbugal ma leen suñ borom bi subhanahu wa taala di teg waaye kenn du leen mën a dimbali ci mbugal moomee ba teqale ko ak ñoom kon fu ñu toll kërug adduna gi moom lu war adduna lu ay pexeem rëy rëy rëy nañuy bàyyi xel ni am na kër gu nekk ca gannaawam te dëgg dëgg dund bu ñu koy wax mooy ëllëg yawmal qiyaama kon kenn ku ci nekk ci nun nay bàyyi xel loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari na ay aaya yu rob ci wàllu adduna ak ay ahadis nabawiya muy xadis yoo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rotal na ko aaya yu bari yoo xamante ne làmboo na ci ŋàññi adduna ak di leen tegtal ne leen fii di saxuwaay na ngeen dellu ci seen boroom tey sàkku dundug àllaaxira ndax dundugee ga mooy dundugee sax nga xamante ni yonent yi ni ñu ko waxee léegi alayhim salaatu wassalaam suñ boroom yónniwu leen ci ludul waxtu wu ne ñuy wëlbati nit ñi su leen adduna tàllalee ak nëtaxaayam ak taaram seytaane di leen ca xiir bànneex taxaw bakkan noonu ñu leen di wëlbati di leen xamal ni dund gi du luy sax bu leen ci def seenum xel wëlbatiku leen jëm ci seen borom sax ci di ko jaamu tey sàkku dund ko sax ëllëg yawmal qiyaama nett nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis dafa romb ci benn gàtt bu dee bu medd mu ni ndax gis ngeen bii gàtt ne lu doy di dale ci fitna ci ñu ko moomoon ñu ne ko waawoo soxla gi ñu ko ñàkkatee soxla moo tax ñu sànni ko fii mu ni leen maa ngi giñ ci ki nga xamante ni sama bakkan mi ngi ci loxoom adduna moo gën a doyadi ci suñ borom ci biir gàtt ni mu doyadee ci ñu ko moomoon nga xamante ni soxlaatuñ ko ngir medd gi medd daa di wax ni adduna day su fekkonte ni yemoo na fa suñ borom mook benn laafu yoo ab yéefar du ci mos benn góof kon adduna kër la boo xam ne dañ fiy jaar rek di jàll aw yoon rek la waaye du kër bokk na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne addunya fitnul mu'min wa jannatul kaafir adduna jéngub aji gëm la waaye aljana aji weddu la loolu jullit bi war na koo déglu bu baax ci xelam te jàpp ko ndax jullit ñi léegi boo seetloo dañuy roy ñu dut ay jullit ci doxin ci waxin ci melo ci colin yow mi nga xamante ni ab jullit nga am lu la lislaam rëddal nga war koo bañ a jéggi war caa yam ndax loolu moo lay fàggul ak texit ëllëg ki yaakaarut ak texit ëllëg mel wa muy mel na muy waxe na muy solo yow war nga ko wattandiku bu baax te boo seetloo léegi ci gone yi muy góor yi ak yu jigéen yi seen royteef yépp mooy ñi nga xamante ni duñu ay jullit ñoom la ñuy roy ci col ñoom la ñuy roy ci waxin ñoom la ñuy roy ci dundin ak jëfin te bokkuñu ndax ab jullit dafay yaakaar ëllëg aji gëm day yaakaar ëllëg texe ak mucc te loolu mënu ko fàggoo ci lu melo ak pas-pas ak jëf ji nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi ak jullit war naa mel kon jullit bi war nay góorgóorlu lu baax bay bañ a roy yéefar bi nga xamante ni adduna moom mooy aljanaam ki nga xamante ni adduna mooy aljanaam na muy doxee na muy waxee na muy jëfe ki nga xamante ni aji gëm la te yaakaar ëllëg texe ak mucc te loolee mënu koo am ci lu mel melo wi lislaam gërëm melo wi lislaam gërëm ci moom war na caa nekk te bañ caa am benn complexe te bañ a roy kenn ci weneen melo weneen wu mën a indi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci lim daan wax adduna lu ñu rëbb la lépp lu nekk ci biir adduna lu ñu rëbb la lu dul loo xamante ni jaam bi su ca yëngu yàlla rek mooy tax bu du ca yëngu ku ñu wax Abu Moussa Ashari wax na yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni képp koo xamante ni bëgg nga àdduna da nga lor sa àllaaxira képp ku bëgg àllaaxira da nga lor sa àdduna daa di wax ni na ngeen gënal li nga xamante ni mooy liy def na ngeen ko yittewoo mu féete kaw ci yéen ci seeni xol muy àllaaxira ci li nga xamante ni mooy liy jeex di àdduna ndax képp koo xamante ni day dañ laa waxoon ni tabax ba gën a rafet ci àdduna su fekkoon te ni soo ko amee ñu ne la fukki at nga ciy dëkk mu raar ko ñu maase la ko jant bi rek taw beeg ngelaw li lépp di jaar sa kaw te ñu dig la sax ëllëg néegu ñax boo xamante ni du yàqu mukk taw bi du ko bët mukk ngelaw li du ci jaar mukk tàngoor jant du ci si mukk mooy lay sax ba faw néegu ñax boobee sax moo la war a gënal rawatina ba nga xamante ni àdduna ak àllaaxira doonu ko ñuy misaal bokk na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne xubbu dunya raxsu kulli xatia bëgg àdduna mooy bopp bépp ñaawteef ndax nit ki su bëggee àdduna ci lay rëy di dikkee ci lay bëgg daraja di dikkee ci lay naw jëf di dikkee ci lay wax lu dul dëgg di dikkee ci lay rambaaj di dikkee ci lay añaan di dikkee mbooleem jikko yi suñu borom subhanahu wa taala gërëmul yépp mi nga daje ci bëgg àdduna moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bëgg àdduna mooy bopp bépp ñaawteef te jikko yooyu yépp lim mën a jur ci àdduna ci fitna ak coono ak teqale diggante nit ñi kenn mënu ko misaal te loolu lépp bëgg àdduna rek mooy li ko waral mooy tax bépp jullit war na góorgóorlu bu baax xam ni fii nu nekk saxunu fi te fu ñu bàyyi ko la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa ànd ak saxaabatul kiram ba ci benn sën mu taxaw fa na leen ñëw leen xool àdduna fekk sëñ boobee yonante bi ma ngi fa fekk ay sagar yu ràpp ak ay yax yu funux mu ne leen lii de mooy àdduna ndax yax morso yi ngeen gis ak yax yi ngeen gis muy yax yu funux yii mooy morso yi mooy li nga xamante ni ñi bëggoon àdduna mooy yiñ daan sol gis ngeen ni mu ràppe ba nekk fii mooy liñ daan teg seenu yaram tey jii kenn bëggatu koo jël di ko teg saw yaram yax yi ngeen gis mu yax yu funux ci ay jëmm la nekkoon jëmm yooyee ñu fonkoon seeni jëmm daan ko taaral daan ko rafetal te mosuñu yittewoo seetal seen xol bi nga xamante ni moom la yàlla di xool ci waxtu wu ne waaye li nga xamante moom la nit ñuy xool ci ñoom waxtu wu ne ñu ngi ci doon sonn ci di ko seetal tey nag gis nga seen yaram yooyee yax yi rek mooy li ci des yéreñ daan sol gis ngeen morceau yi rek mooy li ci def kon adduna du la jar dara képp koo xamante ni am nga am xel la nga war a def mooy wan ko gannaaw te jublu alaxira di jaamu yàlla boole te di rafetal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li mu daan wax suñ borom bindu mbindeef mum gën a bañ ci àdduna ndax ba mu ko bindee ba tey mos koo xool ndax àdduna mooy li nga xam ne yàqu-yàqu ak fitna ak naqar ak tiis wu dal nit ëllëg fii la ko dale ci àdduna ndax fii la ko jëmbate moo tax kenn ku ci nekk nañuy góorgóorlu tey farlu te li nu suñ borom bi subhanahu wa taala digal mu sax ca te teel li mu ko tege yonent yàlla suleymaan ibnu daawud alayhim assalaam dafa romb bis ci gawaram googu yi nga xamante ni gawar gu yéeme la woon ànd ak picc yi di ko keral mu ànd ak jinne yi ak nit ñi ci ndeyjooram ak ci càmmoñam fasinaari góor yi dar ko mbooloo mi soldaar si ndax ni ko suñ borom joxoon ci nguur musu koo jox benn mbindeef mu romb kenn koo xamante ni ko daan jaamale ci waa banu Israël mu ni ca yàlla li mu jox doomu Daawuda ji day lu rëy la jox na ko nguur bu màgg takawe bi yonent yàlla Daawuda déggee loolu mu ne ko benn sàbbaal ci téerab aji gëm moo gën fuuf lii nga xamante ni suñu borom jox na ko doomu Daawuda ji ndax lii mu jox doomi daawuda ji day lépp luy dañ la luy jeex takk la ba mel ni musta am waaye sàbbaalu ko aji gëm luy des la ba fàww suñ borom bind ko kon nit ki koo man di gisal lu mu man di amee ci adduna xamal na ci dañ la jëm ndax nguuru Souleymane googu day lu ñuy natt yi la fi mu ne waaye jeexit bi ca bokk kenn mënatu ko ci ñi fi jaar ci ay buur yi adduna kenn mënu leen a misaal seenub lim ñu amoon nguur yu kawe ñu daan leen wër amoon tabax yu màgg yu kawe daan soppaxliku ci adduna nam leen soobee kenn gisatut dara lu bokk ci ñoom ñoom ñëpp tey ñu ngi ci biir suuf ku ci nekkoon aji gëm alhamdulilah ku ci nekkoon ci safaan nit wala yasubillah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne alhaakumu takkaasur ba kañ ngeen di bàyyi ëpplante ci adduna ndax doomu aadama day fu mu toll danaan sama alal sama alal waaw lan nga am ci sa alal lu dul la nga lekk wala nga dundale ko ci yoon yàlla lan nga am ci sa alal bu dee lu ñuy sol la lu dul li nga sol ba mu ràpp wala nga saraxe ko mu nekk loo xamante ni luy des la ba faaw ba ba yeggee ci sukuraat mu mën laa taxaw boo waree dugg ci bàmmeel noonu boo waree taxaw ci bis pencu noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne adduna day kër la ñeel ki amul kër alal yi adduna yi alal la ñeel ki amul alal ki amul xel rek mooy def fu mu toll di dajale lu mu am di ko sonne ak a karkaraan kii noonu ci ad kii noonu nit ngir adduna it mooy ki amul xam-xam ki amul ak dégg it mooy ki añaane nit ci adduna kii dox jëm ci adduna it mooy ko amul kóoluteef dëgg dëgg kóoluteef ci boromam ak la suñu borom dencal ëllëg ñi nga xamante ni ñoo woon gannaaw adduna lañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni képp koo xamante ni xëy nga adduna nekk sa yitte ji gën a mag amoo dara ci suñu borom subhanahu wa taala te suñu borom dana saxal ci sa xol yépp ci jikko yoo xamante ni doo mën a teqalikoo moom muy yittewoo gu tar goo yittewoo adduna goo xam ne du mën a dog mukk ak soxla soo xamante ni doo ci féex mukk su daanu seneen jóg ak ñàkk goo xamante ni doo am mukk foo koy woomale ndax loo am na la ca tege ñàkk ngoog ak mébét moo xam ni doo jot mukk yamuwaay ba ba faw ndax yonent bi bokk na ci lim daan wax doomu aadama bépp bi bi gaaw dana bi gaawaale ñaari jikko xër ak mébét mu gudd képp kuy génn àdduna rek te bàyyi woo ko woon xel da nga fi génn waale yooyu yonent bi wax naa wax mas naa ko ne Abu Hurayra ndax duma la woon adduna ak mbooleem adduna ak li ci biiram mu ne ko ah kay mu jàpp ci loxoom ba yegg ci wenn xur ci madinatu munawwara fekk xur woowee benn sën ma nga fa ñu gis fa ay boppi nit yoo xamante ni dara nekkatu ca ay yax kese la ak ay dem àll ba ak ay morso yu ràpp mu ne ko yow Abu Hurayra bopp yi ngay gis day bopp yu xërul ci adduna la ñii ngeen ci xëre yéen ñii ñu daan mébét lañ ñii ngeen di mébéte yéen ñii tey day gis nga leen gis nga ñii ni mu ngi ay nekk na ay yax yoo xamante ni benn der sax tegootu ci te day mujj rek nekk ak doom lii ngay gis muy dem àll ba yi ngay gis mooy ñam yi nga xamante nii moom lañ daan dunde te fàggu woon ko ca nañu ko fàggu woon ca dara doonu ci lu seen borom subhanahu wa taala gërëm ñu tàbbaleen ko ci seen biir tey jii xëy na nit ñëpp kenn bëggatut fi ku fi romb rek da ngay jël sa bakkan taf ko morse yi ngay gis muy morse yu rab mooy li nga xamante ni mooy liñ daan def ab taaroo di ko solo tey jii xëy na gis nga ngelaw li ñu ngi koy def di ko xotti na ko ci wet yëpp gannaaw boom ràppee mu nekk par ay morceau ngelaw li di ko wal yax yi ngay gis mooy yax yi fas yiñ daan war di ko taarawoo ca jamono boobu nga xam ne loolu mooy li xewoon bu doon ci suñu jamono yi jàng boo génnoon am na xeetu biir yoo xam boo fa demee da nga fa gis carcasse oto yoo xam ni buñ la waxoon oto bii nangam la mel doo ko gëm te oto boo gis lu mu la yéem yéem yéem rek foofu lay mujj mu daal di koy wax ni képp kuy jooy ngir adduna na nga jooy ndax lii day mooy àdduna nee na ñun ñëpp kenn ku ci nekk jooy foofee jooy yi tar xam ni bopp yii nu gis nga xamante ni ñu xiroon ci àdduna lañ amoon ay mébét lépp tey jii faatu nañ ba bopp yooyee dara waratu ko lu dul ay yaxi kese wala yasubillah te jëmm jenn bi nekk soo gisee nit wala bis bu set sax nga gis ñuy gas fu ñuy denc nit fa ñuy gasee nga gis ñuy sëlwaale ay yax yoo xam ne dina la wër ni lii nit la woon te gis nga ko fa mujj mooy tax adduna du kër gu am solo képp ku yewwu it da nga nekk koo xamante ni adduna du la wër mukk nett nañ suñu borom subhanahu wa taala bi nga xamante ni wàcce na aadama ci kaw suuf dana ko tabaxal waaye xamal ni lépp loo tabax ci rab rek la jëm man ngaa am njaboot waaye bépp njaboot boo amit ci jeex rek la jëm bokk na ci liñ bind ci téerab yonent yàlla ibrahima alayhi salaam yow adduna lan moo la gën a doye di ci ñi nga xamante ni ñu xam yàlla lañ te tënku ci ndigalam te def ay tëram mooy ñi nga xamante ni waxtu ne yaa ngi lay yéem a defaru di leen woon seenu taar te ñoom day ñoon la gannaaw sànni la ci seen gannaaw dëddu la jublu seen borom subhanahu wa taala ndax ñoom day wan nañ la gannaaw dëddu la ndax man day binduma suñ borom mooy wax de mbindeef mu gën a doye di ci man ci yow su mépp mbir mbir yu sew la ni ko wolof di waxe te ci jeex rekk la jëm bis ba ma la bindee ci laa dogal man suñ borom ni amut lenn loo xamante ni luy sax la fi yow amut kenn it koo xamante ni kuy sax la fi yow lépp lu ne ci àdduna ci dañ la jëm ku fi nekk it ci gental ko nga jëm képp koo xamante ni nay na ci dara loo xamante ni amee na ko ci yow ku amee kumpa la ci man texe day ñeel na ñi nga xamante ni seeni xol man lañ ci def ma fees ko dell te lépp lu ma dogal ci ñoom ñu ñu gërëm ko ñu nekk ñuy sax ci dëgg ak njub texe day ñeen na leen ci li nekk fi man ci ak pay ni nga xamante ni noonu lañ wone gannaaw adduna heure boo xamante ni ñu ngi won gannaaw adduna di jëm si man muy di faatu ñi nga xamante ni ñu saxoon ci li yàlla gërëm lañ wonoon adduna ci seen xol seen bàmmeel lépp leer lay doon ay malaika yoo xam ni ña ngay bàyyi ko ci pay bu sell ba ca malolu axlaa ñooy ànd ak Israel buy rocc si ak seenu ruux ñoom jëmm yooyu ay mbàjj aljana yu nu gëttal lay indaale rocc roo gi ci anam goo xamante ni jëmm yi du ko yëg ñu dellu ci yërmande suñ borom joo xamante ni luy sax dakk la te dootuñu ci jugati mukk bokk na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne adduna day lu ñu taxawal la ci diggante asamaaw ak suuf ba ko suñ borom bindee ak tey xoolu ko mukk ëllëg yowmal xiyaamit adduna day wax suñ borom na ko tee nga maa def ma nekk ci ki nga xamante ni ci sa nit ñi nga tànn def ma ca këcc yées ma nekk ak cëram suñ borom na ko noppil yow mi nga xamante ni amoo dara loo wax tey amoo dara yit ndax gannaaw gërëmu moo gërëmu moo joxuma leen ko woon ci àdduna ba ngay nekk ba ñu nekk ci àdduna kon nag duma ko gërëmloo ci ñoom tey jii yomal xiyaama bi nga xamante ni suñu maam aadama alayhi salaam bi ko suñ borom bindee bind xawaa ci moom xamal ko dugal ko aljanna jox ko ndigal mu xéewlu ci mboolem xëyti xéewal ya fa nekk yépp bi nga xamante ni seytaane mën na ko jax-jaxal ko fa waswasa lahuma seytaan ba mu lekk ca garab ga dafa yëg ci biiram ni dafa bëgg a génne li ne ci biiram ndax garab googu ko suñ borom doon tere secret bi taxoon suñ borom tere ko ko mooy garab gi heure bu ci lekkee rek day dem ca wana ba garab googu moo taxoon suñ borom tere ko ko ba mu ca lekkee biiram yëngutu mu bëgg a dem ca wana wa amut kenn fu mu def loolu ndax aljana moom amut loolu te mboolem xeeti ñam yi newoon ci biir aljana yépp it suñ borom defu ci woon loolu bi mu wax ak malayka yi malayka yi ne ko ndax li ci sa biir foo fan nga ko bëgg a def ndax ci kaw lal yi ci nga koy def lali aljana yi wala ci dex yi wala ci ron garab yi sedd yi ak ci sardin yi loolu day amut kenn fees ko mën a def fulit ci adduna nga xamante ni bokk na ci li tax suñ borom wàccee suñ maam aadama ci kaw suuf kon xam ngeen ni adduna kër la koo xamante ni dafa mel ni aw wanag boo ko doon misaal ak àllaaxira kon aw wanag nit ki waru koo jënde di ko bëgg di ko bëgg a sax di bàyyi kër ga xanaa ndax nit ki doo defar sa kër ba mu mel na mu war a mel ci taar ak la ca war a ànd lépp nga dugg ca wanag ba bëgg caa dëkk bàyyi néeg yàq salon kon adduna noonu yi rek daanaka noonu les ko mel ne misaale ci adduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ëllëg yowmal xiyaam suñ borom dana teewal ay jëmm yoo xamante ni seeni jëf day mel ni doj ya gën a rëy seen jëf yu baax waaye ñoom ñëpp suñ borom daf leen digal ñu yóbbu leen sawara wala iyaasu billah ñu ne ko yow yonent bi yàlla bi ndax ñoom dañ daawut julli mu ne ah kay daanañ julli daanañ woor daanañ def sax su guddi jotee ñuy sàkk ay waxtu yoo xam ni dañ koy jóg ngir di naafila ak di jubli seen borom waaye dañ daan def heure bu ñu leen ma saa gaaral daw rek lu bokk ci àdduna rek ñu tëb wacc fa loolu lépp daw wuti àdduna mooy tax nit ki fu mu toll nay ànd ko dal lépp looy mën di def te tuxulaa won gannaaw àdduna ci sa xol ci xeeti jaamu yi xamal ni loolee du la am njariñ ndax xeeti jaamu yépp dafa mel ni ay comprimé yoo xam ni soo koy jëfandikoo daf lay yokk tawhid ak ngëm yàlla daf lay yokk yaqiin sa diggante ak sa borom te nit ki ak ngëmam nu mu gën a dëgëre àllaaxira di gën a wér fi moom adduna di gën di doye di fi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn lenn xutbaam ne aji gëm day mu ngi ci diggante ñaari ragal diggante ak digam bi nga xamante ni li ci wéy te mu sàggan ci wala mu nekk ci lu naqari suñu borom te xamul loolee lan la fi suñu borom di def ak moom ak li def ci dundam te xamut fan lay mujj moo tax mu ne kon jaam bi na yóbbalu ci àdduna jëm àllaaxira ci dundam bi la yàlla mayee ngay dund amul wér sa dund googu yi na nga ko soppaxndiku lépp jëme ko ci jaamu yàlla njëkk dee di dikk bi la suñ borom defee ngay ndaw di waxamaane fexee la tàggat say cër yëpp ci jaamu yàlla ci tënku ci ndigalam ci teet ay teram jëkk ngay àgg ci màggat ndax ndaw lu mu tàggat ay cëram ba màggee ci cër yi da cay daal di làggee na ngeen xam ne adduna suñ borom daf koo bind mu ñeel leen kon bu leen ca ak seen yitte la ngeen ca war a am suñu borom dana leen ko jox waaye yéen nag suñu borom daf leen bind ngir àllaaxira maa ngi giñ ci ki nga xamante ni sama bakkan mi ngi ci loxoom day gannaaw dee lépp lu jaam bi daj mooy gën a metti dee ñu jóge te gannaaw àdduna yaari kër rekk fi nekk aljana wala sawra bokk na ci li sayduna isa alayhi salaam daan wax ni bëgg adduna ak alaaxira munta daje mukk ci aji gëm ni nga xam ne ndox ak sawara kenn mënu leen a dajale ci lenn ndox bëgg adduna ak alaaxira mënuñoo ànd mukk ci xolub aji gëm ni nga xam ne ndox ak sawara mënee si leen a dajale ci lenn ndox sayduna jibril alayhi salaam mas naa laaj sayduna noo ne ko yow mi nga xamante ni yaa gën a gudd fan ci ndaw yi suñ borom yi mu daan yónni naka nga fekke adduna mu ne ko adduna day mi ngi mel ni kër goo xamante ni dafa am ñaari bunt ma duggee ci bunt bi génn ca bee da ngay seet yonent yàlla loo dund na lu jege junniy at ku dund lu jege junniy at bi muy misaal adduna biir bi mu fi nekk lépp daf koo misaale ne dafa mel ni kër gu am ñaari bunt rek bi mu duggee ci biir daa daal di sax génn ca bële ngir gàtt gu mu gàtt fi moom kon yonente bi bokk na ci li mu daan waxee na ngeen di wattandiku adduna ndax moo dàq njabar ñooñu ñuy wax xaaroot ak wamaarut adduna ñoo leen dàq njabar bokk na ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax benn bis ay saxaabaam ana kan ci yéen moo mbëgg suñu borom subhanahu wa taala dindi ci moom ak silmaxa def ko muy aji gis gis bu wér ki ko bëgg day mooy ki nga xamante ni képp koo xamante ni yaa ngi xemmeem dara ci àdduna guddal sa mébét suñ borom dana gumbal ab xolam kem na mu jenge jëm ci àdduna ak kem na mu guddale ay mébétam képp koo xamante ni war na gannaaw àdduna ci xolam gàttal ay mébétam suñ borom dana ko jox xam-xam ci ludut moo koy xamlu dana ko jox ak njub ci ludut kenn di ko gindi daa di wax ni dana nekk ci seen gannaaw ay nit ñoo xam ni duñu taxawal nguur mukk ci lu dul rayante ak forcer nit ñi ba am nguur ci seen kaw mu daal di wax ni kenn mënta doylu ci lu dul loo am doyloo ko te watandiku nay daal di wax ni nag jamono boobee heure buñ ci yeggee maa ngi leen di dénk lépp lu waay am na ko doyloo lu mu néew néew néew képp ku leen man di noonu na ngeen muñ tey góorgóorlu nañ leen di muñ it ci bépp xeetu toroxal boo xamante ni yéen ñi jox seen bopp yàlla te doye del adduna danañ bépp biccingal bu ñu leen di biccingal na ngeen ko muñ ndax loolu mooy tax ngeen mën a yegg ci tedd ngay ëllëg ji nga xamante ni moom la suñu borom subhanahu wa taala nammu ci yéen mu ne jamono jooju day képp ko te yegg soo muñee suñu borom dana la jox yoolub xam si na siddiqan ñu ñuy wax siddiq nga xamante ni ulaayika maha alladina an'ama allahu alayhim min anabiyina wa siddiqina boo jëlee yonent yi siddiqina ñoo ci topp képp ku daj yegg ci jamono bi nga xamante ni nit ñëpp dañoo boo jëm ci adduna nga xamante ni képp koo xamante ni yaa ngi jéem a sellal lépp lu mu doon nga teg ko ci ndigalul suñu borom njëkk nga koy jëf wala nga di ko wax nañ lay bécc ngële jàpp ni yow ko tardé nga ndax jamono bi day toll foo xamante ni daanaka ciy sellal ci sa liggéey wala ci sam njaay ba yi lislaam gërëmul yëpp muy ger ak yi ma xam ne woon yooyu yëpp nga di ko sellal di ko wan gannaaw dañ naan la yow bëggoo dara yow ku ñàkk fulla nga ku ñàkk bopp la lii ngay bañ ñëpp ko koy def xeet yooyu yëpp danañ koy dugal ci sa bopp bécc ngel bu ne da nga ko dégg bu dee koy jaamu yàlla nga wala ngay soxna suy muuru wala ngay ndaw lu jéem a jub di bëgg lu baax xew yi te jamono yi nga xamante ni lépp du lu gën lépp loo ci woon gannaaw rek dañ lay biir ci ngën boo amee complexe rek da ngay daal di bëgg woon gannaaw jàpp ni yow kat liñ lay wax naan la da ngaa tardé wala ak xeeti waxin yi ñu koy waxee ci jamono bii yooyu yëpp nga muñ ko góorgóorlu farlu wan gannaaw yooyu ñu lay béy ci ngën yëpp muñ lépp looy def nga natt ko ci li yàlla gërëm nga nekk ca bu la ci ñëpp fekkee alhamdulilah bu la ci ñëpp wonee gannaaw it doo ci ragal a wéet boobaa suñ borom dana la jox yoolu juróom fukki siddiq muy daraja bi nga xamante ni bu yonent yi wéyee ñoom ñoom ñoo ci topp yonent bi bokk na ci lim daan dénkaane bu leen soxlawoo ci seeni xol mukk di fàttaliku àdduna waxuma la ak di dox di ca jëm wala lu mel noonu Xamaar ibnu Sahib wax na ni Sayyiduna Isa alayhi salaam dafay mas ci dox ba yegg ci dëkk boo xam ni mbooleem waa dëkk bi daf leen a gis ñu faatu ti saaroo ci njab yi foo gëstu rek gis am néew mu wax xawaar yi lay nga xamante ni ñoom la àndal ñii day dañoo dee ci merum seen borom ndax su fekkante ni deewuñu ci lu dul merum yàlla day kon duñu leen fekki nii kon danañ fekk ñu suul ñu suul leen ñu ne ko yow mi nga xamante ni yaay ruux ak suñ borom day bëggoon nañoo xam ñii seenub xabaar mu ñaan suñ borom ngir mu wax ko seenub xabaar mu ne ko suñ borom ne ko su guddee da nga leen di woo bi guddi jotee si dana Isa daal di woote am ku ko wuyu ne ko labbayka yaa ruuxullah mu ne ko lan mooy seen mbir ak seenu xista mu ne ko noonu day dañoo xëyoon nekk ci jàmm gontu nekk ci xëwiya muy safara génn kër ci tamit këri safara yi mu ne ko loolu lu ko waral mu ne ko bëgg giñ bëggoon adduna ak topp giñ toppoon ñi nga xamante ni dañuy mooy yàlla mu ne ko nag ngeen bëggoon adduna mu ne ko ni xale di bëgge way juram ak ni way jur di bëgge doomam xale bi nga xamante ni noonu lay bëgg yaayam su yaayam dee ñëw muy ree waaye su ko wanee gannaaw muy jooy tiit mu ne ko lan mooy mbirum ñi nga àndal ba wuy wuñ ma mu ne ko man mii di wax ak yow de ñi ngi ma ngalaab ci ngalaab yi safara yi ci mala ci loxo yi malaayika yu tar te daa sun siddaat yu tar aw melo te ñàng te mën a mbugale mu ne ko lan moo tax nga wuyu ma ci seen diggante mu ne ko damaa nekkoon ci ñoom waaye bokku ma woon ci ñoom te moom moom yi nga xam ne daa nekkoon ci seen biir te bokku ca woon rek ñu ngi ko ngalaab ci ngalaab yi safara yi wala xiyaasu billah moo tax mu ni damaa nekkoon ci ñoom waaye bokku ma woon ci ñoom damaa nekkoon ci seen biir waaye bokku ma woon ci ñoom moo tax bi mbugalum suñu borom wàccee it mbugal mi yegsi nag sama kaw fii may wax ak yow ñu ngi ma aj ci jëgëñu jahannama xaw ma ndax danaa mucc wala dañ may daal di sànni ci biir safara wala xiyaasu billah sayiduna isa daal di wax ni ñoo ñii mu àndaloon di woy gëm toppoon ko di déglu ay ndigalam di teet ay teram di lekk mburu mu ñu xorom di sol col ga gën a ñagas ak di nelaw ci sël yi ànd ak am jàmmi adduna ak alaxira moo gën fopp suñ borom ëllëg mu lay dugal ci musiba ak tàttar yu mel nii mooy ni nga ko waxee bis bu set rek adduna day nga bañ cee am dara sax ci melawu la yóbbu ëllëg nga mën a làq texet suñu borom jar na ko di ngemb bañ a am loo sol bañ a am loo lekk bañ a am dara bu la ko yàlla nattoo woon it te nga muñ ko te loolee di li lay yeggale ci ngërëmal yàlla ak texe ak mucc jar na ko moo tax Seydina Isa wax ne leen day di lekk mburu moomu xolumut sax ak di nelaw ci ay sën ay sën ànd ak am jàmm adduna ak alaxira mooy li gën fopp lii dal ñuy dal leen adduna lépp luñ fi séen ci dañ la jëm bu dee lu yëkkatiku ci suufe la jëm bu dee lu nataf la ci ràpp la jëm bu dee luy dund la ci dee la jëm bu dee luy tooy la ci wow la jëm bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak saxaaba yi fekk yonent bi amoon na gëléem gu ñuy wax xabu baaw gëléem la woon gu gaaw goo xamante ni daanaka gëléem romb ko yombut benn bis benn axraab yu daw ba romb ko ba romb gëléem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam romb góor gi ak raw góor gi mu ko raw mu mel ni dafa metti jullit ñi suñ borom na leen innahu xaqun ala allahi an laa yarfaha shay'an min ad-dunya illa wadaha suñ borom day ci boppam moo dogu mu li muy lu dëggu fi moom amut lenn luy yëkkati yëkkatiku ci kaw suuf te lu suñ borom dana ko tëral loolu lépp mu won leen rek lu ngeen gis ci kaw suuf rek lu mu leen yéem yéem yéem rek loolee ci dañ la jëm mooy tax kenn ku ci nekk nay doolee gën a góorgóorlu tey doolee gën a farlu bokk na ci Sayyiduna ay saalim daan wax ana kan mooy tabax ak kër ci kaw duusi géej loolu daf ko misaal adduna lépp lu ci nit def rek ci dañ la jëm xam nga ki dem ba ca géej nga ne da ngay tabax day doo def dara lu sotti loolu lépp misaal la ci àdduna lépp lu fi nit def wala lépp loo fi amee rek ci dañ la jëm mu ni àdduna ji àdduna bu leen ko jàppe mukk muy saxawaay ñu àndoon ak Seydina Isa mas nañ koo laaj benn bis na ko xamal nu xam-xam boo xam ne dana nu jariñ muy benn tomb xam-xam boo xamante ne rek dana nu jariñ te dana tax suñu borom bëggunu mu ni leen bañ leen àdduna suñ borom dana leen bëgg su ngeen ba bañee àdduna rek suñ borom bëgg leen nga xam ne benn xam xam-xam boobu rek ci la leen xam moom la leen xamal yonent bi wax na ne su ngeen xamoon li ma xam da ngeen di ree lu néew tey jooy lu bari te àdduna day dana doy di ci yéen te da ngeen gën a lépp àllaaxira ndax mooy la sax mooy la sax ba faaw ndax yonent yi suñ borom daf leen wiññil ñuy xam kumpa xam àdduna fa muy mujj ak ni muy waree nit ñi ak li ci kanamu nit ñi lépp ci ay njàqare ci tiis muy dee ak sukuraatam bàmmeel tëraayam taxawaay bis penc ba ni mu yàggee ak xat-xat yeeg tar-tar ya fay am yëpp yonent yi alayhimu salaatu wasalaam dañ koy gis di ko xam mooy tax kumpa yooyu yëpp suñ borom bi ñori seen diggante buñ gisee kenn ku jaar ci yoon woo xamante ni dana ko yóbbu ci musiba ak naqar ak tiis dañuy gis kii fam dox jëm fu mu doon mel ni mag moo xamante ni rek mi ngi gis xale boo xamante ni mi ngi jéem a dox jëm ci jaami ñangóor yoo xamante ni réyaay ba kenn mënu la ko misaal bu séenee xale bu koy jox loxo day xam ni kii xamut awliya yi ak yonent yi noonu lañ mel ci buñ gisee kuy jëm ci adduna ni nga xame kii fa muy mujj ak moom ni nga xamee ni gone jii di tàllal loxo jaani ñangoor fa muy mujj noonu la ngay xamee ki bëgg adduna fa adduna di mujj ak moom moo tax yonent bi ne su ngeen xamoon li ma xam da ngeen reyal lu néew tey jooy lu bari te kon adduna dana doy di ci yéen ndax lépp lu fi nit am muy lu yëkkatiku ni ñu ko waxee léegi rek ci suufee la jëm lu mu doon rek ci dañ la jëm Abu Darda yi moom ci wàllu boppam rek wax na ne su fekkonte ni li ma xam xam ngeen ko da ngeen génn jëm ci doj yi te da ngeen jooy ci seen bopp lu bari da ngeen bàyyi seen alal yii du ngeen wut ku leen koy waxtul wala dara te duut leen ca dellu mukk ci lu loo xamante ni lu mënta ñàkk la. mooy tax adduna kenn ku nekk ci noonu la koy bàyyi xel te xam ni adduna ci dañ la jëm. ci gent la jëm te kenn ku ci nekk ci mi ngi dox jëm ci ab diggam boo seetloo jamono ji nag nit ñi ni ñu xëre ci adduna ak ni ñu doyo di la diine say rongoñ day tuuru ndax kenn ku ci nekk day lu benn tomb sax benn masala sax bu ko xamee ci diine da koy doy sëkk waaye adduna lu mu ci am rek du ko doy boo seetloo way jur yi bu ñu amee seen njaboot dugal ko ca daara ja bu féree ijji tuuti rek wala ñu tàmbalee gis njariñul xale bi rek dañ koy daal di rocci yóbbu ko muy jàngi métier ngir mën a am adduna rek te xamuñu ni day adduna du kër ki ngay fàggul këru adduna ngir mu am teraanga day xamoo ni kër gay sax ëllëg ji àllaaxira war nga caa gën a takku ca nga war a gën a takkoo ca nga war a gën a sonne ci yóbbu ko foo xamante ni dana mën a xam diineem ba mën a jaamu yàlla ci gën ngaa selli anam ngir mën a dëkk ëllëg ci jannatul firdawsi man faa sax ba faaw kon nit ki soo amee sa doom na nga ko dugal ci daara mu xamal ko lislaam ci xaram amin anam gu sell ngir mu mën a mucc ëllëg taxa ëllëg làq ngërëmal sunu borom la gën a kawe soo demee bay mag it am xàmmee ak ràññee itam wóor na leen ñi nga war a xamee si diine def na it nga wut ku la ko xamal ni nga xamante ni noonu ngay sonne ci am adduna nu ko raw fuuf noonu nga war a sonne ngir mën a am àllaaxira ëllëg yowmal xiyaama yonente bi sala sala wax na ni am na ñuy ñëw sama gannaaw ñoo xam ne adduna dana lekk seenu ngëm ni matt di lekk sawara wala iyaasu billaah ndax nit ki nu mu gën a xuuse ci àdduna ak ngëmam di gën di wàññeeku ak ngëmam di gën di doyadi ba day mujj àgg ci li nga wax rey na xolam dana cër kenn duutu ko mën a tey wax lu muy dégg lépp loo ko wax bu duggee ci nopp bii te nopp bale lay jaar génn duutu mën a tey dégg dara loo xamante ni lu jëm ci suñu borom la subhaanahu wa taala suñ borom mas naa wax yu sayduna Muusa alayhi salaam ne ko bul jéng mukk jëm ci bëgg àdduna ndax amut ku def bàkkaar bu gën a mag bu gën a tar fi man ak bëgg àdduna sayduna Muusa alayhi salaam mas nay dem di déeyante ak suñ borom romb jënn jëmm muy jooy mu wëlbatikuwaat fekkaat ku muy jooy mu ne suñ borom sa jaam bii de moom mi ngi jooy rek ngir ragal la mu ne ko yaayit ma Ximraan yow doomu Imraan kii day su jooyoon ba yuuram ji ak ronkoñ yi ànd di sotti ko mu boole ca di di ma ñaan ba yëkkati ay loxoom ba ay loxoom rot du ma ko jéggal mukk ndax dafa bëgg àdduna kon nit ki lépp looy man di defal suñu borom te yaa nga yërlu benn pepp sar ci àdduna di ko bëgg ci sa xol suñu borom soxlawul loola Sayyidina Ali wax na ni képp ko boole juróom benn jikko yii suubu na ci yoonu aljanna waaye it mucc na ci sawara képp ko xam ni yàlla bor bu am la am ko tàmbaliyul fenn te yemul fenn te sox ko ci lenn te nuruut ak kenn wala lenn ci jëmmam wala ci jëfam wala ci melokaanam boole ci topp ko mooy bu njëkk bi man xarafallaaha wa ataaha képp ko xam yàlla boole ci topp ko nga xam seytaane it boole ci mooy ko wan ko gannaaw ndax al seytaan yaxidukum al faqr wa yamurukum bil faxshaa waaye suñ borom day daf leen di bit ak njëggal ak ngëneel seytaane heure boo nammee jëm ci lu baax su dee da ngaa bëgg a xellal jóg ni damay jaamu yàlla soo jógee waaj ne da ngaa jëm ci julli dalay gàllankoor toogal ba ci kanam waxtu yaatu na nga góorgóorlu ba jóg jàpp mu ne la gaawtoo ko nga góorgóorlu taxaw sellal ko sellalin wu rafet mu ne la yow day kenn mënu la lii nga def day jàmbaar dëgg nga nga daal di yéem sa jëf jëf ca daal di yàqu su fekkente ne da ngaa am sa wërsëg bëgg koo yëkkati jëmale ko ci lu baax daf lay wax ni boo joxee da ngay ñàkk de yow ko ñàkk bopp nga loo am rek joxe ko loolu kenn du ko def ñàkk gi ni mu tare ak ni mettee nga bëgg loo am rek joxe ko loolu lépp seytaane daf koy dugal ci sam xel heure boo nammee jëfal yàlla ci mbindeefam yi moo tax mu ne képp ko xam seytaane it te mooy ko boole tey nga xam dëgg te topp ko xam ay nee nit nga wattandiku ko xam duna xam adduna it nga fëgg ca say loxo ba mu set wicc wan ko gannaaw xam àllaaxira it di ko sàkku boo xamee ni adduna loo fi ma daan ci dañ la jëm lépp loo fi wut da nga ko wut ci anam gu sell waaye da nga ko jëfandikoo it ci anam gu sell xam àllaaxira it xam ni mooy kër gi sax ba faw te ku fa texe texe nga ba faw ku fa texe di texe di nga ba faw la la fay may ak texe nga di ko sàkku ci jamono bu ne mooy juróom benn jikko yi nga xamante ni Seydina Ali karamallahu wajhahu wax na ko ku ñu wax xasan wax na ni yàlla na suñu borom yërëm nit ñi nga xam ne xam nañ ni adduna mbooleem luñ fi amee ab dénkaane la lañ leen dénk it ñu jooxe ko ci gën gaa rafet yi ne anam ba delloo ko ca këleen ko wóolu woon ba dénkoon leen ko muy seen borom subhanahu wa taala ñu gontu di xëy di gental adduna nekk di woy féex loolu mooy lan bala suñ borom bindee ngay doomu aadama mu togg la jëf nga am ak wér li la war ci jaamu ko lépp na nga ko def waaye lépp lu mu la wërsëgal na nga ko fàggu wërsëgul ci anam gu dagan waaye na nga ko jooxe waat it dundelewaat ko it ci anam gu dagan mooy tax booy gontu jëm alaxira wala ngay xëy jëm alaxira safaru dana woyof toy yu kon kenn ku ci nekk na maa ngi xam ni adduna suñ borom daf ñu fee indi ngir nattu nu rek moo lu fi suñ borom def ci ab taar daf koo def ngir natt nu ba xam kan ci nun mooy ki gën a rafet jëf ni mu ko waxee inna jahalna ma alal ardi zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu amala wa inna la jaahiluuna ma alayha shahidan jursan adduna mboolem li fi suñ borom def ci luy nuru ab taar suñ borom daf ko fee def ngir natt nga ba xam nan lañ ciy def noonu ak kan mooy ki gën a rafet jëf ci noonu kon ndax li fi nekk lépp day mujj mel ni li fi mustaam moom adduna kon kenn ku ci nekk na koy bàyyi xel ci ni ko woykat bi waxee képp koo xamante ni day yaa ngi gërëm ci adduna ngir dund boo am mu bëgg loola tawi maa ngi gën ci sama dund ne ci lu néew dana la merloo moom adduna kon adduna képp ku ci nekk na mel ni ku ci nekkut te bul jeng mukk di ci jëm nañu ko waxee léegi rek alal ak njaboot ak lépp dénkaane la te lépp lu ñu la dénk du ñàkk bis ñëw nga delloo ko nañu wattandiku it bëgg a defar suñu àdduna tax ñuy xotti suñu diine su boobaa dutuñu am diine te la ñu bëgg di àdduna suñu borom subhaanahu wa taala duñu ko jox texe day ñeel na jaam bi nga xamante ni gënal na boroomam subhaanahu wa taala ci lépp lu man di doon te lépp lu ko yàlla jox ci àdduna mu nangu koo joxe te yàlla rek tax ngir mën a làkk ngërëmal sunu borom subhaanahu wa taala boo seetloo ci jamono jii nu toll nag ñi ñuy tudde ay nitu diine waxuma la sax nit ki nga xamante ni rek nit simple la di jullit waaye ñi ñuy tudde ay nitu diine sax ñoom ñooy jël diine ji di ko jaay ngir am àdduna wala xiyaasu billah ña leen yàlla booleel ci wàllu adduna ñu war leen a gindi teg leen ci siraatal mustaqima ñu boole leen sax ci njaay ma nga xamante ni léegi ñu ci bari njaboot ga leen yàlla jox léegi dañ koy jaay ngir am adduna te loolu kii toppee war caa ba xel ki ñuy topp it war caa bàyyi xel nit ki képp koy àndal na nga ànd ak moom te yàlla rek a tax saa soo noppee gis yàlla ci moom bul am kersoon ko gannaaw te seeti fi yàlla ne ak fu mu mën a doon waaye ki ñu topp it na bàyyee xel ni ñuy ànd ak moom yàllaa tax ñu ànd ak moom moom ci boppam mu xam ne lii ab yan la bu ko suñ borom yan gàcc ko ko te ëllëg yan boobu yi dana teewaat ci kanamu suñ borom subhaanahu wa taala am keneen ku wax ni yow mi nga xamante ne yaa ngi sakk adduna de loo fi yàgg yàgg yàgg ak loo mën di am ci adduna ci mbégte xéewal ma ngaa mel ni kuy tabax tabax boo xamante ni ba tabax ba taxawee ca la màbbe ndax nit ki lépp lu mën di am ci adduna lu fanam gudd gudd heure bu àggee ci loo xam di teqalikoo jëmmam foofii mu tëdd mboolem xeeti bànneex ak yëg-yëg bu mas a am ci adduna ci lu koy bànneexal wala lu koy bégal dana mel ni mus koo am kon kenn ku nekk ci noonu li suñ borom bi wax ne fala taqurannakum al ayaatu dunya kenn ku ci nekk ci noonu na koy bàyyi xel dunduk adduna gi bu mu war ndax saxut ca luy deñ la ku ñu wax xasan dafa bind Omar ibnul Abdul Xasis mi nga xamante ni moom la ñu wax xaamisul xulafa rasidin ngir maandu gu mu maandu woon ak sellal gi mu sellaloon bokkul na ci buur yi Banu Umayya ku ñoo xasan da ko mos a bind ne ko nekkal melal ni ku nekk ci alaxira loolu rek la ko wax faka am naka bil aaq melal ni ku nekk ci alaxira ngir di ko dénk daal di koy wax ni ko képp koo xamante ni bind nañ ni ko war a dee nga xamal ni dee nga ba noppi ndax ku ni ci dee nga jëm mel nga ni dee nga ba noppi ndax ñun ñuy tooga ni fii day ab diir a ñëw ci kanam tuuti kenn ku fiy def amatu moo tax mu ne ko kuñ bind ni yow kat ku war a dee nga xamal ni yow dee nga ba noppi limaale sa bopp te way dee nga xamar delloo ko ne ko yaa ngi ci àdduna waaye melal ni ku fi nekkut melal ni yow ci sawal bopp musoo deñ di nekk ci àllaaxira limaaleel sa bopp fi ñu nekk àllaaxira mel na ni ki bind day fi muy waxe kawe na waaye ki ko tontu it fekk na moom tamit mel na ni ku waajal boppam ba mel ni ku génn àdduna ku ñu wax Fudaylu ibn Ayaad wax na ni dugg ci àdduna day mel na ni lu doy di la maanaam booy dugg ci àdduna day mel day jàpp ni lool nit ki suy gane àdduna waaye nag génn ko lu tar la ndax nit suy dugg àdduna ku set wicc ci lay doon dara nekk gut ci ruuxam wala ci xelam wala ci xolam waaye nag boo fi yàggee tuuti ba bakkan ak bànneex ak seytaane ak àdduna sax ci sa xel wala ci sa xol wala ci sa ruux ba nga war koo génn da nga yëg ci tartar ak i naqar ndax nit fi mu àggee ci génn àdduna ku la gën a bëgg àdduna rek moo lay gën a tar metti tuddee moo lay gën a metti sukuraat ndax mboolem li nga bëggoon lépp mu aju sa xol ngay génn àdduna loolu lépp nga sa xel di ci dem da ngay tiit boole ci xalaat boole ci jàq mu wóor na li nga am lépp tey mu ngi nocc te mënatoo ci dara dara gënu koo dara mu wax ni day man yéemu naa lool ci ki nga xamante ne xam na ni deelu dëggu la naka lay bégee te xam ni faw mu ngi dox jëm ci dee te faw dana ci yegg nan ngay bégee yéemu naa lool it ci ki nga xamante ne xam na ni sawara lu dëggu la naka lay reetaane te mu tëggu ca ba noppi ki xamit adduna ni mu mën a wëlbatikoo ak mbir yi ni muy wëlbatikoo lu ne mën laa dal loo am tey suñ borom mën naa dogal boo xëyee ñàkk ko su dee ak wér la wala ab gis la wala ay tànk la wala ay loxo la nit mel na nu ne xëy ñàkk loola adduna nag noonu mu mën a wëlbatikoo ak ñoonu mën a soppaxndikoo yéemu naa loolu daal nit ki nan la ciy mën a nekk di am ak dal kon kenn ku ci nekk yooyu yëpp ay wax lay wax yu borom xam-xam la yoo xamante ni ñoom ñëpp kenn ku ci nekk suñ borom yee na ko ca xelum xikma ba mu xam ni adduna du luy sax mukk te lépp lu fi nekk rek luy gent la ku ñu wax Ibrahima ibnu Adham nee na ndax dërëm boo xamante ni da nga koo am ci nelaw moo la gënal diinaar boo xamante ni da nga koy am ci yeewu kooka ne ko daa am kum ko wax kooka ne ko man day diinaar boo xamante ni su ma yewwoo am ko moo ma gën a fopp mu ne ko li nga wax du dëgg ndax su doon dëgg ci yow nii nga bëgg àdduna doo ko bëgge te àdduna misaalum ay nelaw rek la ki nga xamante ni da ngay nelaw ci àdduna ci biir nelaw yi nga am ci ab dërëm nga yewwu muy mel ni alaxira dafay misaal àdduna ak alaxira bi mu ko waajee laajee jëmm jooju nag mu ne ko man day dër diinaar bi nga xamante ni su ma yow am ko moo ma gënal dërëm bi may am ci biir nelaw mu ne ko li nga wax du dëgg ndax li nga wax su doonoon dëgg la nii nga bëgg àdduna doo ko bëggee kon àllaaxira ngay jiital ci seen mbir yëpp. mooy tax ñooñu ñëpp ay nit yàlla lañ yoo xamante ni ni nga ko waxee léegi yonent yi ak mbooleem awliya yi mus ñoo deñ ci di tàggat seen ñoñ ak di leen won loo gannaaw képp. wala lépp loo xamante ni daf leen di xiir di leen jëme ci adduna ndax danañ xam ne loolee ci musiba ak fitna ak naqar ak coono rek ci lay mujj suñ borom bi nga xamante ni mu ngi yónni sayduna Musa ak Haaruna alayhim assalaam ci Firawna daf leen a wax ni bu mu leen tiital mukk yéere yooyu yi mu sol ci adduna maanaam lii ma ko jox ci adduna bu ngeen demee ba ne ko jàkk yéen ñaar ñii bu mu leen tiital mukk ndax am na sam ci sama loxo la nekk loolee mu amee ci adduna yi ci ay bànneex ak it lu taaroo yu ñuy puukareew yooyu yëpp it bu ma sooban tey ma jox leen ko ma noccee ko ci Firawna jox leen ko waaye yéen melokaan woowu yi Firawna am bu mu tax mukk ngeen koy ragal wala ngeen di am benn tiit wala ngeen di am benn njàqare loolu lépp it ay misaal la ci ki nga xamante ni nitu diine la nitu adduna lu man de amee ba mu gestu mukk jëm ca ndax ay bu gestoo jëm ca rek ñàkk diineem ñàkk ngorom wala yasubillah mooy lu tumuraanke nag ci jamono bi ndax mboolem ñi ni tudd ay nitu diine day daanaka boo seetloo li ñuy def ci jamono bii mooy jël seenum nos añ ànd ci seen gannaaw ñëpp jox ko nit adduna yi wala yasubillah loolu day mooy li xew ci jamono bii nu nekk noonu yàlla nanu ci yàlla musal Seydina Aliyu mas nay xutuba wax ni na ngeen xam ni faw bis dana dikk ngeen gental adduna jëm àllaaxira bu ngeen faatoo it na ngeen xam ne suñ borom dana leen dekkal gannaaw ba ngeen faatoo kenn ku nekk ci yéen na xam ne dana taxaw ak boromam ba jàpp ne moom rek la bindoon mbooleem loo jëfoon it suñ borom teg ko ci sa sa loxo sa ci sa loxo yi nga ko jëfe woon kon dunduk adduna gi bu mu leen war ndax lépp ci ràpp la jëm ci dañ la jëm ci jeex la jëm te adduna it kër la guy ware kenn ku ci nekk nay bàyyi xel ni pas-pasam yi mu amee ci jëfam ak ci kàddoom lépp suñ borom subhanahu wa taala dana ko ko tegaat ci loxoom ëllëg yowmal xiyaama ndax li yajziya alladina asaa'u bima amiloo wa yajziya alladina ahsanu bil husna képp ku doon jëf lu ñaaw doon ko yéene doon ko wax na nga xam ni jëf joojee ngay làqutu di ko jëf te yaakaar ni man nga caa mucc jëf joojee ngay làqutu di ko jëf di ko nëbb mbindeef yi suñ borom mi ngi janloog yow te jëf joojee muy ab safaan na nga xamante ni buñ lay yoor ci sa biir bàmmeel nga war faa tëdd yow rek dana dafa wéttali waaye it képp koo xamante ni yaa ngi yéene aw yiw di wax aw yiw di jëf aw yiw it loola it dara du la ca moy ci sóoratul muminuuna ci sóoratul najmi aaya fanweer ak benn kenn ku nekk ci lu nay bàyyi xel ni ay pas-pasam ci kàddoom ki jëfam lépp suñ borom bi subhaanahu wa taala mi ngi koy bind te ëllëg kenn ku ci nekk sa téerab jëf suñ borom dana ko teg sa loxo wa wudiha alkitab fatara almuslimina musfiqina mimma fihi su boobaa dana gis ñi nga xamante ni wooy tooñ leen ñu dana am njàqare ak fitna ak coono bu tar ci bi ñu gisee li nga xamante ni mooy seen pas-pas yooyu ñu amewoon ci àdduna ak seeni kàddu ak seeni jëf te lépp suñ borom bind ko kenn ko ci nekk buñ ko joxee ab téeréem ba mu xool ay jëfam dana njàq tiit tiit moo xamante ni kenn du ko mën a misaal doomu aadama Seydina Ali bokk na ci lim daan dénkaane maa ngi leen dénk ak ragal yàlla muy sange seen xol seen kàddu seen jëf te bàyyi adduna woon ko gannaaw ndax adduna su ngeen ko bàyyiwut it na ngeen xam ne dana leen bàyyi ji koo xam ne soo ko bàyyiwut mu bàyyi la teel koo bàyyi yow te la lay may ak mucc ak texe nga nekk ca adduna dañ ko misaal ci nelawi aji gént wala ak ker goo xamante ni luy dañ la ki amum xel day du ca waru mukk bànneexub adduna amut lan na lu ci sax ay worom it lu bir la lu wér la ci képp koo xamante ni ku am am xel la kon kenn ku nekk ci ñun ñoo ngi leen di dénk te di ci jiital suñu bopp adduna buñ ci nekkee na nga xam ni aw yoon la rek woo xamante ni dañ ko war a jéggi ngir jëm alaxira kon kenn ku nekk suñu nay góorgóorlu ci ndigalu suñ borom bi subhaanahu wa taala tey dellu di teer ay tereem te lépp loo xamante ne suñ borom dogal na ko ci moom mu gërëm ko adduna képp ku ko suñ borom jox ngir nga mucc ci adduna sax dafa jafeñ ci ki nga xamante ni am na wërsëgu adduna yonent bi dafa doon misaal ni ki nga xamante ni suñ borom jox na ko wërsëgu adduna mi ngi mel ni kuy dox ci biir am ndox ndax kiy dox ci biir am ndox mën naa fexe ba du ca tooy mooy tax ñi suñ borom nattoo sax jox leen adduna sax ñu ngi ci fitna joo xamante ni ndax mboolem li leen suñ borom jox ci wërsëg népp nu wërsëg wa toll suñ borom ëllëg noonu la seenu taxawaay di yàgg te bis pénc ba ndax lañu am lépp nañ ko fàggoo def na leen ko laaj fañ ko dundalee it def na leen ko laaj yonente bi sallallahu alayhi wasallam mas may wax ni adduna day ci man mi ngi mel ni ak gawar bu war aw fas ci bis bu naaj wi tàng ci bisub cooroon mu ronu ak garab toog fa tuuti ngir kër gi xaw a sedd rek mu gontuwaat bàyyi fa garab ga mu mel ni garab googee mooy adduna képp ku gis adduna ci boobu bët nag du jéng mukk jëm ca te melo mu mën di indi ci nëtax it lu tax mukk it mu geestu ko ndax da koy wóor ni nataxam boobeeg yooyu yëpp ci dañ rek ci la jëm yonent bi daana misaal adduna ci àllaaxira wax ni adduna ak àllaaxira mi ngi mel ni kenn ci yéen jël ab baaraamam dugal ko ci biir géej li topp sa baaraam bi ci ndox ak la ca def la ca def da ko misaal ni mooy àllaaxira li la topp ci ndox nag mooy adduna kon kenn ku ci nekk yooyu yëpp na koy bàyyi xel yonente bi sallallahu alayhi wasallam mas naa dajale saxaaba yépp wax ne leen ne sama diggante ak yéen léegi ak adduna mi ngi mel ni nit ñoo xamante ni dañoo sóobu ab àll bu lëndëm te jafe ña dem bi ñu demee ba nga xamante ni lañu amewoon ci yóbbal daanaka jeex nañ te xamuñu ndax li ñu doxagul moo ëpp ak li def ñu demit ba nga xamante ni naaj wi tàng na jër seenu yóbbal jeex na amatuñ lenn it maanaam gawar yi ñu amee woon sax mën ngaa wax ni faatu nañ te amatuñ lenn lu leen gàddul seeni bagage ba nga xamante ni dem nañ ba yaakaar ni alku rek maanaam faatu rek mooy li leen defe ba ñu nekkee ca loola am ku génn ci àll boobu ay boppam di sottiku ay doqi ndox ñu ne lii day lu tumuraanke la kii day xam naa ne fu jege la jóge ba ma yegsee ci ñoom mu ni leen yéen ñii day kaay leen ma gindi leen yóbbu leen ci ndox moo xam ne du jeex mukk ak ay sardin yu nëtëx loo xamante ni mosu leen koo gis ñu ne ko noonu day duñ la muy mukk lii nga wax la ñuy def bi nga xamante ni àgg nañ ci boobu itum rànk seeni fas yu ñu waree woon seeni yóbbal jeex ba yaakaar ni dee ci àll boobu yii la ñuy def ci la leen nit feeñoo ne leen yéen day mën naa leen a gindi yóbbu leen ci ndox moo xamante ni ndox mu bari la te sedd ak ay sardin ak ay fruits yoo xamante ni yu baree fa nekk ñu ne ko noonu day duñ la mooy ci lenn loolu digal dana lañ la jox it danañ fasanteeg yow wëllëre maanaam jaayanteeg yow ci lii ñu la wax danañ ko def ba ñu jaayanteeg moom te yàlla ca yàlla rek tax ñu ne ko noonu day duñ la mooy ci mépp ci menn mbir mu yóbbu leen ca ndox moomee ak ci sarde yu la tax yooyee ñu sax fa ab diir mu ne leen yéen gaañ ñi ñu ne ko yow jëmm ji mu ne leen araxiil nañ daal di laxas ñu ne ko fan lañ jëmati ñu mu ne leen ñoo ngi jëm ci ndox moo xamante ni bokkut ak mii ndox ñoo ngi jëm ci sarde yoo xamante ni bokkut ak yi sarde ñu ëpp ca mbooloo ma ne ko wallaahi nun de gis ñu lu gën lii njort ni lu gën lii am na lun lan la ñuy doyeeti dund bu gën bii dund sax ab kuréel bu néew ca mbooloo moomee ne ko ne leen waaw yéen xanaa joxu leen woon seen wëllëre jaayante kii ne kon duñ la may te lépp loon wax danañ ko def te kii kay gannaaw ci lam leen njëkk a wax lu dëggu la ba ngeen teg ci seen bët kon kay xam leen ni lii mu leen waxaati mooy luy dëgg waaye jëmm joojee daa di gont laxas ànd ak ñu néew ci ñi nga xamante ne ñoo dégg ak kàddoom ñu ca ëpp daa di koy wan gannaaw nuur ca loolee ñoom ñu gis waaye ñax tuuti am noonu fekk leen foofee ñi ci ëpp mu rey leen ñii ñu jàpp leen ay jaam loolu lépp it ba tey dañ koy misaal rek ci àdduna ak nit yàlla gannaaw yow yaa ngi woon ci fitna nekk ci naqar nekk ci tiis ba yaakaar ni ci dee nga jëm ñu tegtal la ay xéewale ki tawfeex yoo xamante ni tax na la nga génn ci fitna joojee mu xamal ñu dem ba ne la kat fii kat nit kut foo war a sax fooy war a jóge la ñu ca ëpp dañoo daal di nuur rek ci àdduna ñoom mooy nit ñi rek yonent yi dañoo ñëw fekk nit ñëpp di way tawat ñu fexe ba génn ci seeni xol tawat yooyee xiir leen ci seen borom waaye ñi nga xamante ni àdduna jot na leen a dikkal àdduna fëkk leen ak nëtëxaayam fëkk seeni xel ba ñoom ñu yaakaar ni geneen dundu gën dundu àdduna gi amut ñu ci néew ñoo mën a muñ bakkan muñ bànneex muñ xéewali adduna yi ngir mën a am ëllëg waaye ñi ci ëpp ñoom yaakaar nañ ni amul geneen dund gu gën dund adduna gi tax ñu nuur ci waaye ñoom ñëpp it fa ñuy mujj rek mooy ci naqar ak tiis ak mbugal moo xamante ni du duñ ko mën a tee jógati mukk ndax adduna day lépp lu ci lew ëllëg suñ borom dana la ko xisaabe lépp lu ci xaraam it loolee mbugal la rek moo xamante ni suñ borom subhanahu wa taala ëllëg yomal xiyaama dana la ko teg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ne mi ngi sàkku adduna maanaam mi ngi sàkku lu lew ci adduna ngir ëpplante ak ndamu dana dajeeg suñ borom suñ borom di ko aji mere waaye képp koo xamante ne it mi ngi sàkku adduna ngir fegu ci du laaj kenn fekk ab deram téye ak ragal yàlla mën a dimbali ak njabootam dana dikk ëllëg yowmal xiyaama xar kanamam mel ni weeru badar weeru wu am fukki fan ak ñeent ndax adduna it noonu ñu ko misaale yi lépp it jëmm ji nga xamante ni fu muy xëyee wala muy gont lépp lu muy def lépp lu mu ca amee lan mooy tax mu di ko sàkku ngir téye ak ragal yàllaam dimbali ay waajuram liggéeyal ci sama boroom jox ci njabootam loolee duñ ko tudde mukk adduna waaye la nga xamante ni moom la ñuy tudde adduna mooy li nga xamante ni jaam bi daf koy fàggu rek ngir ëppalante ak ndamu waaye li nga xamante ni ngir fàggu ko ngir téye ak ragal yàlla moo tax loolee di su ko tudde adduna mukk ñu mujjee ci dénkaane bi ci ku ñu wax uwaysul qarani yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci li mu daan wax inni la ajidu nafasa rahmani min janibil yamen maanaam ci misaal catuk suñu borom day mu may xeeñ ci wàllu yamen ci ku ñu wax uwaysul qarani yi ci mu la woon joo ragal yàlla ku bér woon nit ñi dëkk ci àll yi ngir mucc ci fitnay adduna danaa bokk ko suñu borom xamalee muy góorgóorlu di farlu jamonoy xilaaf ak Seydina Omar alayhi salaam Seydina Omar dafa dajale ñu bari daa di wax yéen nit ñi ana kan ci yéen moo dëkk xiraaq ku ci dëkk xiraaq na jóg taxaw am ñu jóg taxaw mu ne leen toog leen yéen ñëpp ku dul ku dëkk kóofa rek mën naa toog ñu toog ba mu def ñu dëkk kóofa mu ne ku dëkk fi nga muraad mën naa toog ñoo ci def ñëpp toog ba mu ba mu ne képp ku dëkk ci dëkk bi nga xaran yi mën naa toog kenn rek taxaw ku dëkk ci dëkk boobu rek mën naa toog kenn rek taxaw Omar ne ko ndax xam nga ku ñu wax xaran yi yow yaay ci dëkk xaran xaran yi mu ne ko waaw mu ne ko ndax xam nga ku ñu wax Uwaysu ibnu Laamiril xaran yi mu melal ko ko mu ne ko waaw kooka day noonu ab dof lañ ko jàppe ku jinne jàpp it lañ ko jàppe daanaka it bayima it lañ ko jàppe mooy ki gën a yées ci ci noonu it bi ko Seydina Omar laajee jëmm joojee nga xam ne ci xaran yi da dëkk kan mooy ci oysul xaran yi moom misaal moom ko ci jox mooy kooku de moom mooy ki gën a dof fa dëkk ba jinne lañ yaakaar ni sax moo ko sadd aw rab sax lañ ko jàppe ne ko mooy ki gën a yées ci noonu Seydina Omar daal di jooy jooy yu métti mu ne ko day lii ma lay wax day dégg naa yonent bi di wax ni ëllëg moom Uwaysul Qarni moom yi suñ borom dama ko ramm loolu toll ni rabiha wa mudar ñaari giiri arab la ñu wéy mu ni kooku day suñ borom dama ko ramm loolu ëllëg yawmal qiyaama muy Uwaysul Qarni moom yi ku nga xaram ibnu xayaan ba mu déggee wax jooju Seydina Omar wax ko ba mu demee Koofa ci la tàmbali di wër Uwaysul Qarni moom yi ngeen mën koo gis ba yàlla dogal mu fekk ko ci dex googu ñuy wax foraat ci digg bëccëg gi muy jàpp ak di fóot ay yéreem nee na ci laa ko xamee ci melo yu ma dégg kookee melal ko ci laa xamee ni kii la maa ngi fekk karaw gi mel noo xamante ni ak sikkin bi jéggi na dayoo ma nuyu ko mu daa damay dellu nuyoo daa damay xool bi ma tàllalee sama sama loxo bëgg koo bëgg a saafanteeg moom nanguwut ma ne ko yàlla la yàlla yërëm yow Uwaysul Qarni yi te jéggal la lii lu mu doon ñu ngi ko waxee loolu mu daal di jooy jooy yu metti ne ko yàlla la yàlla yërëm yow xaram ibn Xayaan naka nga nekk yow sama mbokk ak kan moo la tegtal ci man ak kan bi mu ko bi mu jaaree ci aw turam sax la mu ko njëkk a wax mooy naka nga ma xamee mu ne ko xaala naba'ani al alimul xabiir suñ borom day moo ma xamal saw tur sama ruu ci boppam moo xam sa ruu moo tax ma waxante ak moom ndax roox yi ñoom dañoo xeetoo ndax aji gëm ak aji gëm seen roox danañ xeetoo danañ xamante danañ bëggante te yàlla dogul sax ñu gise mu ne ko damaa bëgg it nga waxtaanal ma ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan woo xam ne danaa ko dégg ci yow ndax man day dayoo ma ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àndu moo nit ak moom waaye gis naa nit ñoo xamante ne àndoon nañ ak moom jotal nañ ne ci moom it ay xaddis ndax óori si moom ni musta gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonente bi daan na xeere ci moom loolu yi mu ne ko man day bëgguma nekk koo xamante ni day nekk kuy waxtaan wala kuy aju ubbee wala ay aju àtte ndax yooyu yëpp damay bañ sama xol di jéng jëm ci loolu ci àdduna nit ñi di ma teg fenn koo xamante dana sabab may am genn rëy wala genn bëgg àdduna ngir nit ñi waxtaanee may waxtaan ak ñoom ba tax ñu may teg fenn waaye nag damaa bëgg daal nga jàngal ma lenn ci ay ayaatul quraan yoo xamante ni danaa ko mën a dégg ci yow nga ñaanal ma it dénk ma it dénkaane boo xamante danaa ko mën a wattu ndax kat man bëgg naa la bëgg gu tar te yàlla rek a tax mu bëgg la mu daal di jàpp ci loxoom ba ci tefesu xoraat gi mu ne auzu billahi samil alim min ashaytan rajim ñu waxee loolu rek ay rongoñam tàmbalee tuuru mu ne ko li gën a dëggu day mooy waxi suñu borom subhanahu wa taala ndax mooy ki gën a dëggu waxtaan mboolem lees di wax wa maa xalaxna alsamawati wal arda wa maa baynahuma laaxibin maa xalaxnaahuma illa bilxaq walakin aksarahum la yaalamuun daa di koy wax ne ko suñ borom day nee na bind asamaaw yi ak suuf yi ngir fo bindulee nit ci lu lu dëggu waaye nit ñu bari xamuñu kon suñ borom loolu yi mu wax ni ci beneen xaay afa asibtum annamaa xalaqnaakum xabasan ba leen jot mukk dama leen bind ngir fam lam ca teg ku ne war na ko bàyyi xel waaye na ko ma ilayna laa turjaxoona waaye kenn ku nekk ci yéen dana dellu si ci man ba jàpp ni moom rekk laa dundoon daa di ca ci ci aaya boobu la tàmbalee ba yegg ca innahu huwa al asiisul hakiim bu yeggee foofu rek ci lay yuuxu yuuxu gu tab daa def tëdd xam fa ibnu ayaan moom dafa yaakaar ni sax owesu dafa faatu mu ne ko ibnu ayaan bi mu xëqee ne ko ibnu ayaan na nga xamante ni léegi bisa ngi ñëw faw danga géntal àdduna jëm àllaaxira te xamoo àjjana ngay jëm xamoo sawara ngay jëm sa bàyyi aadama faatu na sa waajur wu jigéen ni xawaa moom tamit faatu na yonent yàlla noo li muy yàgg-yàgg ci adduna mujj na ko gental ibrahima xalilu rahmaan nga xamante ne moo doonoon xaritub suñ borom faatu na Muusa mi nga xamante ni moo doon di yàlla ak suñu borom moom i tamit génn na adduna daawud mi nga xamante ne moom la suñu borom defoon kuutaayam ci kaw suuf moom i tamit génn na adduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne mooy ngën gi mindeef génnoon na adduna Abu Bakri noonu nga xamante ne moo nekkoon xalifa jullit ñi Omar noonu mu ne ko Omar kat faatuwut mu ne ko ah kay suñ borom tàgg na ma ni Seydina Omar faatu na te gis nga Seydina Omar moo doon laaj mooy su ma nii ba kii ñëw di ma seet ñu ngi ko dénkaane dénkaane bu bépp xamal ko limal ko ñu baax ñëpp ne ko ñii liñ doon baax baax liñ doon tedd tedd ak fa leen suñ borom tegoon ñoom ñëpp géntal nañ adduna te doodu ñu duggati mukk ba ci Seydina Omar mu ne ko Omar de faatuwut ndax ba yiw ko woon mu faatu mu ne ko suñ borom tàgg na ma ni Seydina Omar faatu na na nga xam ni man ak yow ñun ñëpp nañu limaale suñu bopp cooy dee ñi bi mu waxee loolu ci la julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko ñaan yoo xamante ni déggu ko ñaan yu suufee nii mu ne ko nag dénk mu ne ko maa ngi lay dénk bii dénkaane te na nga xam ne dénkaane boobu bii mooy téereb yàlla bi mooy ngirum ñu baax ñëpp di ngirum mooy gëm ñëpp maa ngi lay koy dénk di ci ca di ci dénk sama bopp maa ngi lay dénk del fàttaliku dee te sa xol bu mu teqali ko fàttaliku dee mukk lu toll tartal xëy na du fekk yaa ngi dund ci kaw suuf soo delloo na nga xupp saw nit te nga lay biir xeet yépp te yàlla rek a tax bul teqali ko mbooloo mu jub mukk li fekk lu toll benn xebre kon da nga teqali ko sa diine te doo ko yëg waxtu wu ne na nga bàyyi xel ne xamoo da bul teqali ko mbooloo mu jub mukk kon lii da nga teqali ko sa diine ci lu dul nga di ko yëg te ëllëg da nga dugg sawara yowmal xiyaama baat boobu bi mu ko wax ne ko sa xol bu mu deñ di fàttali ko dee lu toll tarafatal xay li fay yaa ngi dund bu ngeen seetloo noonu suñu waxtaan li ci ëpp képp ku koy déglu la ci ëpp mooy mbiri ëllëg ak mbiri bis pénc ak mbir yawmal qiyaama ndax loolu mooy liy sax mooy li nekk ci sunu kanam te kenn ku ci nekk mu ngi dox jëm ci su ko yëgee ak su ko yëgut bokk na ci li tax sunu waxtaan li ci ëpp ñu ci fàttali nit ñi loolu mooy liy dëgg te mooy liy sax te mooy mujjuwaay bi kon kenn ku nekk ci loolu na xam ne ñu baax ñëpp muy yonent yi ak awliyaa yi mos ñuy dañ di wonloo nit ñi adduna ñu di bëgg nit ñi di won gannaaw adduna di jublu àllaaxira ndax àllaaxira mooy liy sax ndax adduna kër la koy gent kon kenn ku nekk ci noonu na xam ne dafa nekk li ci adduna te fu mu xëy ñu ngi koy gën di sori fu mu jëm di ëllëg yomal xiyaama bi fu mu xëy ñu ngi koy gën di jege kon nañuy fàttaliku ëllëg te di ko bàyyi xel te li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na nit ki mu dund ni lay dee te ni mee ni mu dee ni lay dekkee wépp melo woo xam ne bëggunu bu dee dikkee fekku ni ko nañu ko teet te melo wépp ñu bëgg bu dee dikkee fekku ni ko nañ ko nekk te saxta noonu dénk suñu bopp te dénk jullit yi ñëpp kenn ku ci nekk na xool adduna ci bët bu doyee bi ndax lépp looy gis seen bëgg koo yéem ci dañ la jëm bu dee nit la ci gental adduna la jëm bu dee matériel la ci ràpp la jëm bu dee lu yëkkati ko la ci suuf la jëm bu dee luy dund la ci dee la jëm na nga xam ne adduna amul solo te kërug ëllëg ji ni ñu ko waxee kenn ku ci nekk fi nga ko koy tabaxe te num kenn ku ci nekk sa kërug ëllëg nu mel yaa koy jëf ci sa loxo yu bopp kon kenn ku ci nekk nañuy góorgóorlu te farlu ci ragal yàlla te farlu ci maandu te farlu ci rafetal te rafetal suñu digganteeg jullit ñëpp bu ñu ëmbal suñu xol kenn lu ñaaw bu ñu wax suñu dàmm kenn lu ñaaw bu ñu jëflanteeg suñu sirit kenn lu ñaaw ku dut ab jullit sax te gàllankooroon suñu diine nañu rafetal li jëmale ci moom te yàlla rek a tax nañuy boole jaamu yàlla ak liggéey te lenn lu ci nekk ñu sellal ko bu baax ngir jëm suñu borom lu ñu suñu borom man di jox ci adduna bu ñu ko xool nañ ko delloowaat suñu borom ci gën nga rafeti ni anam jërëgéen jëf yàlla na suñu borom may dégg ak topp te defal ñu tawfeex ak barke ci daraja rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dolli ci benn dénkaane boo xam ne Sëriñ Tuuba mas na koy dénkaane mu bokk it ci ay waxam bokk na ci ay dénkaaneem mu wax na ittibaaru xaqi sayxil murabbi azamu min xaqil walid topp sëriñ bu matub sëriñ boo xam ne day yar sa ruux képp foo toogee moom dana la wax lu lay jariñ ci adduna ak ci àllaaxira di la ca yar di génne bépp pas-pas bu yàlla gërëmul ci sa xol di la takkaayal bépp melawu yàlla gërëm ci xol ba tax leeru suñ borom di mën a sotti ko ci sa ruux ak xam moo gën a màgg ak way jur ndax sëriñ bu matub sëriñ day yar ruux ba yóbbu ko ci melo yi suñ borom bi subhanahu wa taala gërëm fàggul ko ak texe gu sax dakk ëllëg yeggale ko ci boromam ba faw ruux googu day nekk ruux buy dugg àjjana waaye wéyu ñaare yaram lay yar rek yaram nag niñ koy waxee dafa mel ni ak ruux wa yaram ak ruux daa mel ni ruux mooy wurus wi yaram di xor mi ko ëmb loolu lépp nag buñ koy wax nit ki ba mu waru ku mu séen rek bu ñu nee diw kat ab sëriñ la ñu ne mbàkk la sant wala bési wala nangam rek ci sant yooyu rek nga jàpp ne ab sëriñ la ab sëriñ buñ koy wax mooy koo xamante ni waxam ak jëfam ak jëmmam ak meloom lépp suñu borom subhanahu wa taala moom lay tegtale koo kii la jubla wax ne xaqam moo gën a màgg ak way jur mu ni way jur yaram lay yar benn yaram mën naa dugg àjjana waaye yépp mën naa dugg sawara daa de wax ni képp ku faatu ci lu dul nga jaayante muy joxe sa bopp jaayante jox sa bopp yàlla te jaarle ko ci jëmm ju ko mat dee nga dee ak aji réer te képp ku dee dee ak aji réer sawara moo gën a yee ci yow wala iyasubillah bokk na ci lim daan waxit aji laaj ñaar ñooy laaj kiy laaj alal ngir dimbalikoo ko ci topp yàlla ak kiy laaj alal ngir dimbalikoo ko ci mooy yàlla daal ni kiy laaj ngir topp yàlla jox ko kooku soo ko joxee dana la dimbali yow ci sa wàllu bopp ngir nga mën a topp yàlla kiy laaj ngir mooy yàlla yi jox ko ndax dana dox sa digganteeg sawara wi nga xamante ni ëllëg ay nit ak i doj noonu la ko suñu borom di xamle wala yaasu billahi bokk na ci lim daan wax mboolem luy toq ci xelum doomu aadama yetti xaaj la yitte ak yittewoo ak njàqare himma mooy li nga xamante ni yàlla rekk la wala loo xamante ni lu jëm ci yàlla la wala loo xamante ni boo jëmee ci yàlla dana la ci dimbali loolee jeexitalam leer la yittewoo mooy loo xamante ni lu jëm àllaaxira la lu jëm ci yàlla wala lu lay dimbali ci boo jëmee ci yàlla loolu mu ne ay secret la waaye lépp lu jëm àllaaxira jeexitalam leer la fëmm nag mooy loo xamante ni adduna rekk la koo xamante ni yittim yëpp ci adduna rekk la ko def jeexital yooyu yëpp nag ay lëndëm lëndëm la ak i nax nax képp koo xamante ni yaa ngi ànd ak moom te yàlla rek tax mujj ga alhamdulilahi rabbil alamina waaye képp koy àndal te yàlla të te yàlla tëgut mujj ga inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek la daal di wax ni képp ku topp li ko yàlla digal dana texe dugg aljana képp ku teet li ko suñu borom bi subhanahu wa taala tere dana mucc ci sawara daal di wax ne inna labraara la fi naimin maa lam yartadoo ñaamee pas-pas yu baax ak kàddu yu baax ak jëf yu baax ñu ngi ci yoonu aljana li fekk duguñ ca wa inna al fujaara la fi jahimin ñi nga xamante ni ñoo amee pas-pas yu ñaaw ak kàddu yu ñaaw jëf yu ñaaw ñu ngi ci yoonu safara maa lam yartadoo li fekk duguñu dellu ci siraatal mustaqima bokk na ci li mu daan wax képp koo xamante ni jublu na suñ borom bi subhaanahu wa taala wépp yiw jublu ci moom waaye képp koo xamante ni jublu na ci leneen lu dul suñu borom subhaanahu wa taala wépp lori jublu ci moom waliyaasu billah bokk na ci li nga xamante ni Sëriñ Tuubaa daana ko dénkaane daana wax ne na ngeen soxlawoo ci li nga xamante ni su ngeen di jëm ci seeni bàmmeel mooy li leen di gunge di leen fa wétli ñu ne ko loolu mooy lan mu ni yéenew yiw di jëfu yiw te sax ca njëkk ngeen di dox jëm ci bàmmeel loole ñu ne ko mooy lan ba tey mu ni al imaanu ak islaam ak ihsaan mooy nga gëm yàlla gëm gu mat sëkk boole ci juróomi ponk islaam yépp nga di ko jëfe te boo koy jëfe nga di ko sellal te yàlla rekk tax loolu mooy li nga xamante ni mooy li leen di wétali ci seeni bàmmeel mu ne loolu lii nag na ngeen ko soxla woon njëkk ngeen di dox jëm ci seeni bàmmeel mu misaal ñu ne ko lan mooy gëm yàlla mu ne gëm yàlla mooy nga bañ a bokkaale yàlla ak kenn wala lenn islam mooy li la suñ borom subhanahu wa taala digal nga bañ cee bàyyi dara muy juróomi ponk l'islam yëpp nga di ko jëfe ni la ko suñ borom subhanahu wa taala digale ihsaan mooy ngay bañ di gestu jëm ci mbindeef yi boo tegee sa tànk ci li yàlla bëgg bul gestu rafetal ko ba noppi bul gestu bu nit ñi jëfee jëfal ànd ak ñoom bu ñu jëfutit jëfal yow rek ni ñu koy wax bi si set boo tegee sa tànk ci li yàlla gërëm bu la nit ñëpp lay jubla ak ñu di la wan gannaaw nga yem ci yow képp bokk na ci li nga xamante ni Serigne Touba daana ko dénkaane it ñëpp mbirum adduna moo xamante ni du la yeggale ci mbirum alaxira ak neen la bokk na ci lim daan dénkaane it képp ku takkoog li yàlla digle am li bëgg képp ku teet li yàlla tere mucc ci li ragal bokk na ci li mu daan dénkaane lépp lu yeggale luy yeggale nit ki ci yàlla bokk na ci li mu daan dénkaane mboolem ndigali suñu borom yi ñooy bunti aljana ñooy caabi aljana waaye mbooleem tere suñu borom yi it ñooy bunti sawara bokk na ci li mu daan wax it lépp luy yeggale nit ki ci yàlla bunt la waaye lépp lu lay yeggale ci lu dul yàlla kiiraay la bokk na ci li mu daan dénkaane adduna day wane ne gannaaw te ku koy wut du ko am mukk àllaaxira jublu na te kenn du rëcc ñépp ca leen jëm walaakin aksara naasi laa ya'lamuuna la ko tëlee bokk na ci li mu daan waxe yoon yi jëm ci yàlla toll na ni nooy mbindéef yi waaye ba ca gën a jege mooy teggin yi ñu gërëm loolu mooy tasawuf ndax tasawuf lépp ay teggin rek la teggin ni nga war a jàpp sa diggante sa borom ak ni nga war a jàpp sa diggante sa morom bokk na ci li mu daan wax mu ne suñ borom day ku tedd la lépp lu nekk fa moom it lu laab la képp ku bëgg dara ci suñ borom subhaanahu wa taala na laab ci lépp lu yàlla gërëmut ci pas-pas ci kàddu ci jëf mooy lu xaraam ak lu mu sit ak lu ay caaxaan ak lu mel noonu bokk na ci li mu daan dénkaane moom Serigne Touba bokk na ci màndargam texe bëgg dëgg di sàkku dëgg boo gisee dëgg it nga sax ci dëgg ak di yéenew yiw di waxu yiw di jëfu yiw boole ca sax ca mu ne la na nga tuub tuub gu sell ci bépp bëccëg ak bépp guddi boole ca yéene ju sell ci lu teew ak ci luñ dikkal bokk na ci li mu daan wax it képp kuy toroxlu dana am la mu bëgg lépp ci yëkkatiku képp kuy barkeelu ci lu ñu war a barkeelu it dana am ak tuufu it ci jariñ képp ku toroxlu ngir yàlla yàlla yëkkati ko barke it kenn mënu ko am ci lu dul barkeelu ci lu am barke bokk na ci lim daan dénkaan yi mbir yépp yett la lépp lu juddoo ci ndigali suñ borom yi subhaanahu wa taala ñu ngi nekk gëndiku ki doon jëfe ndigal yooyee ci buntu aljana bu fa yeggee mu tàbbal ko fa lépp loo xamante ni mi ngi juddoo ci mooy yàlla mi ngi xaar ka ko doon jëf ci buntu sawara bu fa yeggee mu dugal ko ci lépp lu juddoo ci àdduna dees na ko yëkkati dees na ko ci génne yëkkati ko ba ñëpp gis ko mu mujj nekk ak pënd bu ñuy faare bokk na ci lim daan wax it jataay toog a kuy dund dana tax a dund waaye toog a ku dee dana tax a dee toog a ku tawat it dana tax a tawat kiy dund mooy kan mooy koo xamante ni waxtu wu ne foo ko fekk mi ngi ci li yàlla digle teel la ko yàlla tere yëngu ko dalam yépp daal mooy li yàlla digle rek mooy kiy dund boo doon misaal kenn mooy dund mooy ki nga xamante ni waxtu wu ne ci li yàlla digle rek ci la nekk ki dee mooy kan mooy ki nga xamante ni fu mu toll rek ci li yàlla xaraamal rek ci lay xëy ci lay gont ci tawat moom mooy ki nga xamante ni ci li si ak ci li amul njariñ ci la nekk yett yooyu nag koo ci nekkal rek ca lam nekk ca la lay jëme kon loolu it ba tey dénkaane la yoo xamante ni Serigne Touba daana ko dénkaane téere bii ñu tiimit di ci indi ay dénkaane ni téere bu tumuraanke la téere bu jaxañ la ndax lettre yi ñu doon jukkee yépp ci lañ ko doon jukkee te bépp wax boo ci seet muy waxu Serigne Touba mooy la dëppoog alxuraan ak sunna mooy la dëppoog mag mag ñu baax ñu ko jiitu woon ñëpp te doon yeesal lislaam mu ñëw it moom itamit taxaw ci taxawaay boo xamante ni néew na ndell mooy taxit képp koo xamante ni yaa ngi ko topp it war nga xam la nga xamante ni moom la doon dund yaroon ci njabootam nga tënku ca loolee nag mooy alxuraan ak sunna leneen lépp lu nit mën di dégg luy woyofal benn xeet ci xeeti jaamu yàlla yépp ñu naan la loolu ci Sëriñ Tuubaa la bàyyi koo xam képp ku la ko wax xamal ni la waxu la dëgg ndax Sëriñ Tuubaa bëgg-bëggam yitteem yéeneem lépp mooy fa yonante bi tegoon tànkam mu teg fa tànkam ñi mu àndaloon it mu yar leen ci loolu mooy li mu doon dund dund doon leneen li ci baree baree bari nag gannaawam lañ ko sos dugal ko ci biir yoonu murit te loolee bokk ci waaye képp ko amum xel daal ne la wóor ne Sëriñ Tuubaa bëgg bëgg mooy bëgg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ lam bañ it mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ la yonent bëgg mooy ak bëggam lam bañ mooy ak bañam mooy képp koy aju ci moom la nga war a nekk mooy jullit xaqan képp ko la gis du mën a xebat ci yow ci sa wàllu diine du la mën a xebat it ci sa wàllu liggéey kon yàlla na yàlla may dégg ak topp te saxam ne siraatal mustaqima te ñu bëgg dëgg te sax ci dëgg buñ boo boo ca nekkee bu ñuy tekkale sa bopp ak sa baat waxal alhamdulilahi rabbil alamin te xam ne ci dund guy sax ba faw ci la la loolee jëme dëgg ci la nit ki war di sax bul ca bëgg a wéet bul ca ragal bul ca ragal a wéet bul ca bëgg a wéet li ko ak jullit fu mu toll nay sax dëgg dëgg yi njëkk dëgg yi mujj ku ñu rey sax ca fekk na biñ lay rey yaa ngi ci dëgg kala rey sax dalaa noppal ndax dalay yóbbu ci dund goo xamante ni duutu jeex mukk ndax da ngay daal dem dëkkaale ak sa borom nekk sahid salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu